bismillah rahmaan rahim alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin astahinuka rabbi wal istihanata ila bik wa ahmaduka wala zanahu ila alayk wa usalli wa usallimu ala sayidina wa maulana muhammad allazi jahaltahu rahmataka lil alamin wa jaxaltahu miska alxitaami alzahiri almursalin wa ba mbokk yi ñu seetaan te di ñu seetaanee fii ci seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub lislaam dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen tomb waxtaan ak yeneen i gan di leen ndokkeel ci ajjuma ji di leen ci ziyaara di leen balu àq di leen baalu àq di amaat yéen bu sell pour ànd ak yéen ci jotaay bi tey nag ci kàttanu yàlla ak coobareem ñoo ngi fas yéene ànd ak yéen ci spécial siyaara maam Khalifa Niass Niassène Léona ku nekk xam na ne maam Khalifa euh, min rijaali laay ci góoru yàlla yi nga xam ne daa séddee woon boppam suñu borom tabaaraka wa taala laxasaayu ko liggéey ci saayir ak ci baatin li nga xam ne mooy liggéeyu saayir bi ñu bari moom teg nañ ci seen bët mooy taalifaat yi mu def ci ay téere ay wesar ak ci siyaara mu doon loo xam ne yaakaar naa ne jàngkat bu ne boo fa demee da nga xam ne kii liggéey na loo xam ne histoire lu mu fàtte fàtte mënu ko fàtt jëmm jooju nag moom la ñuy defal tey waxtaan préparé ko ziaré général bi ñu koy defal bi ñu ci bëggee waxtaan nag nit nañ natt am ay borom xam-xam yi ñu ko seqat ki jiitu ci ñooñu mooy oustaz Jibril Congaan di jàngkat di jàngalekat bokk ci kër ga yegsi na ci jotaay bi ñu ko dalal jàmm di ci toftal oustaz eh, Ousmane kow Kowkow moom it di jàngkat di jàngalekat eh, bokk ci kër gi yegsi na ci jotaay mi ñu ngi ko dalal jàmm waxtaan wi nag ñu ngi ko bëgg a tënk ci tomb yi may tudd si bëgg nañu ak leeral eh, ku ñu defal leeral ci kan mooy xalifatu Mouhamad Aminata Niass mooy kan ak kan la gañe àddina buñ ci jógee ko bëgg nañ xam sabab yu tax ak lan moo motivé taalibe yi ak askanu ñeseen yépp ba tax ñuy jagleel maam xalifa ñes benn surne di ko dañ koy ziyaare lu waral loola bi ci des ndax Cheikh kalifa maam kalifa comme ni ma ko junjee léegi am na ay téere yoo xam ne taalif na ko ci ay wesar ak i woy ci yuñ ci mën a xam lan la parce que junj naa ko mais tur yi ba ñëw ñu seetaan bëgg nañ ko xam bi bëgg nañ xam importance bés bi nan la toll ci taalibe yi ak yan leçon lañ ci mën a tiire ko defee yàpp jàpp naa ne loolu ci la jotaay ba yëkkati ko Oustaz Thiongan gannaaw bu la nuyoo balu la àq baal Euh, di la siyaara ci lii ñu fas waxtaane kon boo bokk yi nga yóbbaale laaj bu njëkk bi kan mooy maam Khalifa wala kan mooy Mouhamad Aminata Niass ak kañ la gañ a àdduna billahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi allazi xad awqada nuurul huda fi bi sohbati alqawmi kiraamin nujaba fa axlusul xuluba min axyaariha wa hazibu nufuusa min akdaariha summa salaatu wa salaamu ala man lawlaahuma kaana kawnun iz kaana ayna alkamaali fa huwa almuqaddamu xaqan fi lxalqi duna aljidaali bu doyut mën naa leen a dolli ma wax leen wa in taaqara baachan fa faham li jamii alxilaali wa ala alihi wa ashaabihi ridwanullahi alayhim ajmaina wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi ddin Oustaz Cheikh Tidiane bi tey ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax di la ziyaara di la ñaanal yàlla bu defan ak wér bu ñu lu nuyoo danañu nuyu suñu xalifa di xalifa maam xalifa ñas muy bàyyi seet yi am xalifa ñas ak mboolem njabootu maam xalifa ñas suñ ko nuyoo rek dañuy magam ja Mouhamadou Mahi Ibrahima ñas ñooñu dañ ma joxal nuyoo bi mbooleem xalifa yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk nekk ci réew mi ñu ngi nuyu itam kilifa aada yi nga xamante ni ñoo ngànk réew mi moo xam ñi ci pouvoir bi la ak ñu nekk ci opposition di nuyu sama xarit bi di sama soppi di sama sëriñ muy Ousmane Sylla kaw kaw waaye di nuyu mboolem koo xamante ni yaa ngi déglu DTV. Euh, Oustaz Cheikh Tidiane bi tey kan ma maam Khalifa Niass maam Khalifa Niass xam naa ma wax ci du yomb ndax baxarun laa saahila lahu la géej la goo xamante ni kenn mënu koo jaaxal dama gis sama sëriñ sëriñ Habib Rajo Ibrahima Niass bu daan def gàmm ci maam Khalifa Niass. jël téeram boobu mu tuddee miir miraatu bi am amsiya buy tàmbali dana wax ne da ngeen bëgg ma commencé ci commencement bi wala ma dem ci digg bi wala ma dem ci mujj ga ndax maam xalifa lem guñ jëlu suukar la fépp a neex foo tàmbalee ci moom rek neex na kon maam soo commencé ci juddoom <coughs> neex na soo demee ba ci digg bi itam neex na boo demee ba ci mujj ga itam neex na ndax lu tax dafa judduhaale li ñuy wax xam-xam mu laddin yi moom moo ko wax ci euh, téeram boobu muy way Seex na Tijaani ci xay yi max nan di bu lay daa te yamal xal bal xamida lan la ca wax haaja lii hubban qadiman wa tarifan wa talida daf ne maam xalifa daf ne haaja yëngal ne lii ñexel ma lan moo la lan moo yëngal mu ne lan moo la si mu ne hubban cofel hubban qadiman xadiman léegi xadiman googu moom moo la ko firil ci kanam nga mën a xam lan la si jublu ndax xadiman gi ba mu nekkee ndaw la wala afa bi juddu la xaaji li hubban xadiman mu ne lan wa tarifa wa talida loo xam ne dañ ma koo fàggul ak loo xam ne maa ko fàggul sama bopp lim fàggul boppam mooy ba mu juddoo ba xegg fi ñu war a xamee fexe na ba xam lu war a xam yépp li ñu ko fàggul nag mooy loolu afa mi judd lañ ko ko fàggal kon moom dafa juddaale li ñuy wax xam-xam la di ilmu la di nii waaye juddaale juddaale itam xam-xam li ko firndeel mooy ba mu juddoo wax nañ ne nettali nañ borom xam-xam wax ne Ahmad Daha bind na ko Ahmed Sukari dëggal na ko ci téere mi boo demee ci ne ci basama basamaatu raasixa ba Sëriñ Haadi Ñas mu ngi koy dëggal mi ñuy wax ne ba mu juddoo bisab aljuma waxtu tàkku tàkkusaan ñi ne déere waxtu treize dañ ko jox weenu yaayam mu bañ a nàmp ba jant ba so mu door a seex weenu yaayam wa ñoo bindal ko toqantal mu bañ a jël toqantal ba ba jant ba so mu door naan taq toqantal ba mu ñu ne li euh, la ko dalee ci ñaari fani koor gu mu juddoo ba ñëwee koor jaax mu ñu ne maam xalif ci bàyyi nàmpam ci li ñu xamee ne fajar gi xar na waaye ci jël nàmpam ci li xamee ne jant bi sono kon loolu muy dëggal ne hubban qadiman wa tarifan wa talida te wax nañ ne ñaa ñett la yàlla may ñu juddu nekk liir ba pare di tegtale xoor Cheikh Omar Fouti yu sax baan la judd moom ni ba mu juddoo sax baan weeru koor mosu koo nàmp <coughs> ak ñu wax Cheikh Abdou Khadir ki nga xamante nii mooy sultaanu awliya xalifatu Hachim moom ñes mu ngi juddu judd 1981 ñii na déret 1000 1800 dama juum 1881 ñii na déret 1879 lu ci mit boo ko xoolee ci Euh, hijriya mu ngi toll ak 1298 su ma jumut 1298 googu soo ko euh, euh, boo ko boo ko isaabee 1298 soo ko isaabee mu ngi lay jox alquran dusturuhu boo boo calculé 1298 li muy signifie kon kii nii ñëw na nekk jëmmi alquran ndax mu ngi judd ci weer wi alquran wàcc mi weeru koor moom itam mu judd ci weeru koor mu ñëw itam dem ba yonent bi euh, gàddaay mi hijriya ak fi ñu fi ñu fi ñu taarixee atam yi muy mu toll ak 1290 boo ko calculer ak ak ak ak juddu maam xalifis mi alquran addus tuuruhoo bu fekkee 1800 bi la soo ko calculé itam mu ngi lay jax inna nahnu nurisul arda wa man alayha wa ilayna yurjoon kon nga xam ne xalifatu Haashim Muhammad Ñas radiyallahu anhu dafa ñëw nekk jëmmi alquran waaye dafa ñëw nekk jëmmi joo xamante ni bokk na ci yonent bi waxoon ne al ulama warasatul anbiya borom xam-xam ñooy doon ni yonent waaye kañ ndax ndax boo nekkee borom xam-xam il faut nga ragal yàlla ndax innama yaxsha llahu min ibadihi al ulama moo tax sëñ Tuubaa day wax ne képp ku ñuy jiiñ xam-xam te yàlla xam-xam nekk ci moom walaw afnal funun yaakaar naa loolu Cheikh Ahmadou Bamba wax kon xalifa Haaji Mahamad Ñas radiyallahu dafa dafa juddu rek xam xàmmee moo tax bàyyam na ko doom di distance yi ngay distance bi ngay nàmp musuma gis yalwaankat bu ñëw ci kër gi tudd baatu seede bi lur set bi seq nga sa weenu yaay bi xànd moom di jaayu mu ne ko bàyyi loolu fàttaliku naa ko moo waral wax ne moo tax moo waral bindkat yi wax ne ba muy am juróom-ñaari at la ñëw ci papaam na ko alma daxa aqalimba mu ne ko doom lu xew mu ne ko dama bëgg nettali sama judd xam nga ne kon wa tarifa ñëw na wa talida ñëw na liñ ma fàggul ak li nga xam ne maa ko fàggul sa bopp ndax wax nañu Alaaji Abdoulaye Niass ci xam-xam bu bëri ba ci xam-xam bu rëy ba dafa yitte woon tag yonent bi lu bëree bëri bëri yitte woon si Cheikh na Tidiane Chérif radiyallahu lu bëree bëri bëri waaye nag mu ne jihaad gi te jaww jamono seen adduna bi Sénégal dafa métti woon ndax boobu tubaab yaa ngi fi colonisation yaa ngi fi mu métti lool muy jihaad boole ko di jàngale yor daara ji boole ko di yor tool yi tam di bay léegi nag soo bëggee boole jàngale bu ko boole bu ko boole jihaad bu koy boole njàngale meeg jàtt ji xam nga du yomb léegi te xam te xam na yéene way Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu naan bàyyi leen ba rënk ñor li ma bëgg ci yénant bi wéy ko xaw ma ko waaye bàyyi leen ba rënk ñor kon rënk boobu mën nañoo mën nañ cee dégg ne kon xalifatu Haasi Maam Ñas bu waxee ne haajali hubban qadiman wa tarifan wa talida kon mooy rënkab Alaaji Abdoulaye Ñas radiallahu anhu ko te loolu ba après dina feeñ ci biir euh, mm-hmm. waxtaan bi incha allah rabbi ndax Alaaji Abdoulaye Ñas seede na ko ba mu demee ba nga xamante ne fukki at moo ko fi ci dundam fee na ko fukki at ab euh, avant mi génn àdduna Euh, mu yaxal ko maam Khalifa Niass yaxal ko bu yu bëri dal di ko yaxal moom moom Khalifa moom Niass ba mu amee juróom-ñaari at dama lay wax ni dafa ab papam daxa ak xalim mun mu ko doom lay def mu ne ko doom bëgg nettal sama judd bàyyam jox ko mu jël xalimbaam ngi bind lim njëkk woy mooy saafaxatuhu saafaxatu saafaxante naa hu ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bi nii mu jël ma ak loxo droitam ma sama loxo ak loxoom fi mu Mbarati ci wattu ngombarlante diggante ak sana timis ba mu ba nga safante moom lu xew mu ne fa damman nii daf ma bés dammatan bésin woo xam ne soxat bi ilal li mboolem jàngoro boo xamante ni day gàllankoor adama aadama kerek laa ci wér jaaran jàngoro rëy jàngoroy kañaan jàngoro gis sa bopp jàngoro yéeg sa bopp mboolem jàngoro goo xam ne day tànnal nit xam nga Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam xam maam Khalifa dafa niroo yonent bi ci lépp te xam naa dinaa ci ñëw xam nga Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam opéré nañ ko quatre fois suqa sadru nabi arbaa maratin hakkaha fi siratul qudama borom miir atu safa loolu wax def ne xotti nañ dënnat Seydina Mohamed sallallahu fois ba mu juddoo xotti nañ ko ah euh, dal di ko di fa def xam-xamu xikma ba ba nga xamee ne am na ñeenti at ca kër alimatu saadiya ñu dal di ko opéré waat bay alquran di wàcc ndax diisaayu alquran innaa sanulqi alayka qawlan saqilan ñu dal di ko opéré waat pour mën a attan alquran ji bañ koy rañaane ji itam ñu ko lan xotti xotti xottiwaat moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maam Khalifa Niass itam nag comme moom moo niroog yonent bi ndax ñoom mu niroog ci turu ndey tur niroog ci turu baay moom itam mu am juróom-ñaari at bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme mbaayam alaajubila Niass ndax yonent bi baayam Abdoulaye la tudd te bëgg na lii man lu nekk ci yonent bi yëpp mënut nekk ci maam Khalifa waaye lenn li ma na cee ne yonent bi nag ñëw ci ngénteem jël ko ak loxo droitam bës ko ci dënnam wax nañ ne kere ba ko bësee ci dënnam kere la photocopie xew ndax yonent bi da ko fas taf ci dënnam pour mbooleem lu nekkoon ci dënnam bi mu sotti ko ci dënnam si maam Khalifa Khalifa taxaw si ba muy jàng alquran jàngutoon waaye da doon lan jàng-jàngulu ndax ci biir njàngam alquran moom maam Khalifa taxaw moom ñis ci la doon taalif téere yi ci biir ba muy jàng alquran ci la doon tafsir alquran soo demee ci bi euh, saraatu euh, miratu safa ak ci jiyoosu tulaab bi mu raafat ko da nga ko fekk ca euh, commencement ba mu koy wax moom moom xalifatu Haashim moom ñes di war di nettali mu ne ba muy jàng alquran commencé ba ci amayata dafa commencé di tafsir alquran ndax daan wax sëriñ bi ku doon jàngal na ko aay bii nga yemale ma de baax na waaye nag bu ci bii tegoon ci lay wax ji gën a jóg sëriñ daara bi na ko man mënuma laa jàngal te ko jàkka jàngal mu ngi tudd Ahmed Jaxeer mu ko yow mënu ma la jàngal de mu ne ko lu tax mun ne ko yow mag ma lay jàngal ngay tafsir alquran man nag xale bi tafsir alquran kooku mënu ma koy jàngal mu dele ko waajuram waajuram mi na ko maam Khalifa Mouhamed damal nga jàng jàngalu ndax ñun cet daf ñoo yomb topp waaye nag nafsatul masdur la borom téere ba waxoon mi inu droidi isa jaasa lu xaamu mi nawaahira xëmma tafletu kuñ dóoral koo xamante ni dafa fees dell dell foo mëntu jaar rek mu rembet day xam mu commencé jàng ba am yata commencé nag comme mënu koo muñ wax ko ko bind la xale bi ci alquran bu ko jàngee ba ma ko tari waa léegi nag mu ko bind ko ay way di ci tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax daraan def lépp lu mu mos a yowee yonent rek bàyyam da ko daan nangu suul ko ana la njëkk a wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te boobu mu ngi ci daara ji tollu tabaaraka ah, lana karaman zaadan yuballiquni diyaara hibbika qabla shaybi wal hërami hatta uniiqa bi man kaana mahabbatu zo qabla alfitaami wa qabla darki lil lil xulumi ndeysaan nee na euh, euh, ndeysaan bay bi mu wax léegi sax <laughs> wa xëb la naa karaman wa xëb la naa karaman ma ngay ñaan yàlla <coughs> na yow yàlla yàlla nga ma may teddaangi yow yàlla maa ngi lay ñaan itam nga may ma teraanga zaadan yu baliku nii nga xam ne stranga joo xam ne dana mën a yóbbu fan diyaare hibbika këru soppe ga mi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kañ ko bëgg mu ne xabla chey bi wala xëri may màggat di bi jaaw laa bëgg nga may ma loolu moo tax ci fanweeri atam ci la yàlla def mu dem Seyd sa siyaare ji sopp ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf euh, Jibril Thiongaan mel na ni euh, bidaaya musharrafa mm-hmm. ni nga ubbee jotaay bi am na solo Euh, waaye ma yëkkati sama kàddu yi teg ko ci sa kàddu mhm. di siyaare xalifa Cheikh Ahmad Tidiane Niass mhm. di ko ñaanal yàlla yan bi diis na mais yal na ko yàlla nekk ndimbalam amiin di siyaare yi nag sama xarit euh, Cheikh Mouhamad Arabi Niass di ko ndokkeel bu baax a baax euh, mel na ni biñ la laajee kan mooy maam xalifa mhm. wax nga ne ñi baarun la saahila lahu géej la koo xam ne amul tefees nga ne dafa juddu àndaale xam-xamam mu mel ni ndoneel la ci diggante mu boromam loola nga ne waxoo ko haswaiyan waxoo ko rajman bil xay bi ndax lu ñuy wax haswaiyan du am tegtal mais lépp lu nit di wax te waxut ko ci làmbatu dana am tegtal te joxe nga ay tegtal ci wayum wayal boppam kon loolu firnde la wax nga ne mi ngi bu juddu bisu ajjuma eh, fukki fan ak ñaar ci ramadaan ñaari fan ñaari fan ci ramadaan fan mm-hmm. waaw ci treize mm-hmm. mu mel ni yàlla feeñal na ci moom xar baax ndax feeñ ak xar baax gi mooy ku ganee àddina ci ramadaan mën a bëccëg bi buñ la joxee benn doo nangoo nàmp kooku beneen affaire la wax nga ne eh, loolu mooy tombeek mille cent 1881 wala 1879 date yooyu yëpp benn boo ci taarixat biñ nga jógee ko fa dikk nga ci beneen tafsir boo xam ne defe naa mooy tafsir bu ñu tuddee alxadat mooy jéem a tafsir alquran ci ay ay ay nga ne soo jëlee mille huit cent boobu datam bi mu juddu boo ko calculé mu jox la alquran dusturun yonent maam xalifa yonent bi sallallahu alayhi dafa waxoon bu yàgg ne alxolama warasatul anbiya nga ne moom ci warasa anbiya yi bokkoon ndax xamul luy xam-xam waxeewut luy xam-xam jëfewut luy xam-xam lépp waxam yëpp xam-xam la jëfam xam-xam la nekkuwaayam xam-xam la tax nga ne toog na fi yow min minal ayam ne papaam mhm. dama soxla xalimba ak dib mhm. ma jéem a taarixal sama jut mhm. te booba mi toll ci juróom at mu doon lu kéemaane ndax boo xoolee tey jamono bi ñuy def émission bi man ak yow nga jël xale bi juróom-ñaari boo ko laajoon tey ban bés nga judd sax ñi ci yàlla defal tawféex dëgg ñoo koy xam waaye ñu ci bëri sax mënuñ ko xam xamtuma laa toog nag bëgg a bind taarix ci sa juddu kon mën nañu wax ne maam xaliba xajoobatun min xajaa'ibi dunya kenn la woon ci kéemaani àddina tayib Ousmane gannaaw buñ la nuyoo balu laaq baal laaq euh, ci tomb bi ñu nekk loo ñu ci idaafaal ci cheikhul xalifa Mouhamad Aminata Niass mooy kan aoudu billahi min alcheytan arrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alhamdulilahi alhamdulilahi fi kulli lxarakati bi tajalliyaatihi sawaan bi jamaalihi aw bi jalaalihi tumma alhamdulilahi fi kulli sakanaati bi tajalliyaatihi sawaan bi jalaalihi aw bi jamaalihi tumma alhamdulilahi alladi allamana bima kallafana walam yukallifna illa mastatana tumma alhamdulilahi alladi manna alayna minanahu lwaafira an aymaanina wa an shamaailina wa asbaga alayna niamahu zahiratan wa batina tahiyaatu ahlillahi min axikum fillahi ila ibadillahi ahbaabi habibillahi sayidi wa mawlaaya muhammad ibni abdillahi rasulillahi aminillahi nuurillahi alhaashimi sayidi alwujud wa alami shuhud assababi fi kulli mawjud sallallahu alayhi wa ala xulafaihi rachidin almahdiyin wa ala azwajihi tahirati ummahati almuminin wa baad mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel mboolem ñii topp seen émission bi di ci jiital Seydi al Oustaz Ahmad Tidiane bi tey ñaan yàlla yokk fan gi ak wér gi waaye di nuy ki ànd ci émission bi muy Oustaz Jibril congaan moom it yàlla na yàlla sàmm ko aar ko waaye di nuyu suñu xalifa bu tedd ba Baye Cheikh Ahmad Tidiane ñas mi Seydi Ahmad Sukayri Ja radiyallahu anhu doon woowe borom turu màgg wi nga xam ne su daan yóbbante nuyoo maam xalifa ñes radiyallahu bu tuddee ñi ba yegsi ci moom daf naan ko nuyul ko borom tur bu màgg wi ñu koy nuyu moom it di ko ñaanal yàlla yokk ko aw fan yokk ko ak wér ci barke yonent bi sallallahu waaye di nuyu bu baax a baax euh, cheikh mohamadul maahi euh, moom it di ko ñaanal fan ak wér di ñaanal buñ tuddee ñaar ñooñu rek mu yóbbu mboolem sin xalifa général yi ak mboolem kilifa diin yi nekk ci réew yi euh, ci réew mi yëpp ndax ñooñu ñooy njabootu maam alaaji Abdoulaye ñas radiallahu anhu te jotaay bii ah, dana bokk ci sabab bi wala mooy sabab bi sax mooy ziyaara bi nga xam ne ni moom lañ dëgmal xam ne cosaan cosaan li mu ngi jóge ko ci maam alaaji Abdoulaye Niass ci di ko ziyaara ci eh, ak ganale daal xam naa dinañ ci ñëw insha allah bi mu jógee Faas kon Cheikh Ahmed Tidiane bi tey ñi ngi sant yàlla bu baax a baax ci occasion bu ñu ñu toog ci jotaay boo xam ne nii nga xam ne bu ñu fi toogoon di déglu li ñuy wax rek loolu doy na ngëneel ndax inda dikri saalihina tatanazalu rahmat bu ñu waxtaanee ni ñu baax ñi yàlla day kontaan ba day def ay tëjëliyaat di wàccee du wàcce benn yoon nag lu bëri lay wàcc moo tax ala was ni tata faal di wàcce tata nazalu rahmat yi day wàcce wàccee moo tax kon fekkee fu ñuy waxtaanee ni ñu baax ñi mm-hmm. loolu ah doy na ak sant yàlla hmm. rawatina ñuy waxtaanee ku mel ni maam Khalifa Niass radiallahu anhu hmm. ah, nettali nag dundu nitu yàlla ak nettali seeni jaar-jaar loolu dafa bokk ci soldaari yàlla yi nga xam ne ni yàlla da ciy dëgëralee xol yi ñi gëm yàlla comme ni ko Cheikh Abdul Qadir Jeylaani waxee hmm. radiallahu anhu radiallahu anhu mu ne maanaam di toog di nettali jaar-jaar yi wëllu yàlla yi nee loolu dafa nekk jundun min junudillaahi dafa bokk soldaar la bu bokk ci soldaar yàlla mhm. yàlla di ci dëgëralee xolu ah, ñi ko ñi ko soob biñ ko laajee tegtal mu ne day tegtaloo rek la imaamul junay di tegtaloo woon ci loolu te mooy wa kulla naqsu alayka min ambaa'i rusuli maa nu thabitu bihi fuaadaka dañ lay nettali xisaa yonent yu jiitu mhm. ndax luñ dëgëralee sa xol kon nettali jaar-jaar yi nit yàlla yooyu ah donte nag lu jafe la xam waliyu ndax xam waliyu yàlla ak di ko waxtaanee surtout ndax waliyu yàlla yi yàlla da leen may ay dimension yoo xam ne ni dañ ci yegg ñu bëri duñ ci yegg te boo ñëwee ci juddu gi rek da koy commencé gis moo tax nitu yàlla waxtaanee ko daanaka ku gëmul tasawuf dëgg pour nga man ko du yomb waaw ndax benn day laaj nga gëstu ko te nit su yu bëri bu nekkul ci sa bu nekkee ci sa xol ah, ci kañaan ak soxor ak rëy yu demee noonu pour nga toog di gëstu ci nit loolu day jafe beneen ba itam soo ko gëstee ba xam ko pour nga dëggal ko ak gëm ko ak yañ lay nettali nga xam ne day juddu ya cay xew ak yooyu noonu moo tax Seex Abdul Xaadir Jilaani nee na maarifatul wali abadu wa asabu min maarifatillah nee na xam waliyu moo gën a sori moo gën a jafe xam yàlla ndax moom day lekk di naan moo tax waaye nag ku yàlla dimbale defal la tawfiq rek ni ko sunu maam Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu waxoon yàlla mën na laa defal tawfiq nga xam leen gëm ko ñi fa ci li nga xam ne ni macha allah am na solo di Jibril Congaan wax ko muy mel na ni xamle na kan mooy maam Khalifa Niass radiyallahu anhu li ciy dolli rek mooy comme ni mu ko waxee maam Khalifa Niass radiyallahu anhu euh, nit la koo xamee ni nii sénégalais la ndax Sénégal la juddoo lim jàng itam Sénégal la ko jàngee Sénégal la jàngee jàngewut beneen réew ci àddina bi jàngewut benn réew mhm. Sénégal gii la jàngee lépp lu jàng yàlla may na ko nag mu dund quatre-vingts ans ndax moom mille mu ngi juddu la vingt neuf juillet mille huit cent quatre vingt un loolu moo wér vingt neuf mille huit cent la la la juddu mm-hmm. léegi nag loolu moo tombe ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ñaari fan ci weeru koor mille trois cent quatre mille deux cent quatre vingt dix huit mm-hmm. muy jeexantalu mm-hmm. euh, siècle boobu noonu nga xam ne ñaari at rek say des mu diggu mille trois cent léegi nag moom ci diggu boobu la judd ci weeru koor yàlla dogal itam mu juddoo ci famille boo xam ne ni famille bu baax la ay jàngkat lañ ay nit ñu baax lañ ay boromi xam-xam lañ muy famille ma alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu ci néegu ndayam ak ci néegu baayam nag ndax li tegtale loolu mooy ma alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu ay maamam yëpp boo ko toppee ba ca maamam rida ñëpp ay boromi xam-xam lañ ay jàngkat lañ ay nit yàlla lañ waaye ma alaaji Abdoulaye Niass moom nga xam ne moo war a nekk baayam moom maamam bi jur yaayam moom maam xalifa moo war a nekk sëriñam bi koy jàngal may ko tariqa tijaan maanaam maam Khalifa mhm. bi nga xam ne ni mooy jur yaayam maam Aminata Thiam nga xam ne ni mooy mottali mu dëppoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. moom tur bokk moom turu nday ak turu baay bokk bokk moom itam turu premier xalifa mhm. ndax maam Khalifa radiyallahu Muhammad la tudd baayam Abdoulahi comme niñ ko xamee yaayam Aminata Aminata Thiam moomu ku ñuy wax maam Ibrahima Kellel mooy waajuram kooku moo ko yëkkati may ko jarbaatam di alaaji Abdoulaye Niass ndax alaaji Abdoulaye Niass maam Khady Thiam mi nga xam ne nii mooy waajuram euh, ak maam Ibrahima Kellel ñoo bokk léegi nag kon nga gis ne maam Khalifa ci néegu ndayam ay jàngkat lañ bañ na ko ba gis nga maam Ibrahima Kellel bi mu demee bay may maam Khalifa maam Aminata Thiam maam Aminata Thiam du aawa ma alaaji Abdoulaye ñaareelam la moom mooy ab ñaareelu ma alaaji Abdoulaye waaye biñ ko koy may boobu fekk na xam maalaa ji dafa sonnoon ci àddina ñi daan lakk ay téeréem ak ak tubaab yi yenn xeex yi ñu ko daan def ak yooyu noonu mm-hmm. daanaka jamono biñ koy may euh, maam Aminata Thiam yaay maam Khalifa fekk na yorutoon lu cane lu benn risaala risaala lañ ko cane moom maam Khalifa maam Khalifa mu ne kon risaala boobu ñu cane ko ku ko mënoon di jur itam moom borom xam-xam lay doon risaala la la lañ cane yaay maam Khalifa Maam Alaaji Abdoulaye Niass boobu risaala la am moom la jox euh, maam Ibrahima Kellel pour mu nekk can si soxna si mu koy may ñaareel kooku mooy ni maam Ibrahima Kellel boobu nag nga xam ne moo jur yaay maam Khalifa moo jàngal ma alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu moo ko jox tarixa Tidiane donte ijaasaalut ko nag waaye moom moo ko jàngal jàngal ko fànn xam-xam yëpp daal di ko jox ko tarixa Tidiane kon maam Khalifa radiyallahu anhu bi mu juddoo si weeru koor ni ko euh, ni ko mbokk mi waxee yàlla defal na ci maam baayam muy ma alaaji Abdoulaye ngëneel mooy bi bisi juddu gi si la gis yonent bi sallallahu moom ma alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu te ma alaaji Abdoulaye Niass ku màgg la ci yàlla ku rëy la moo tax rek doy na xam la ci maam kalifa Niass radiyallahu anhu li maam Baye Niass waxoon maam Baye Niass daf ne man xaasa walidan bihi bi walidi ay na furuun ka furuun li walidi mu ne koo xamee ne nii da ngay jéem a xiyaas ngay nattale sa waajur ak sama waajur waajuram mooy ma alaaji Abdoulaye Niass mu ne léegi indil ma banqaas yu mel ni yi ma alaaji Abdoulaye Niass am ñu ne ko ban banqaas mu ne man kal xalifati alladi taallama minhu wa minhu qad hawa taqadduma ay najlahul kabira bahra al ilmi wa faaqa fi sigari kulla al qawmi radda an cheikhi ala al fuhuli wa sayara al alima kal jahuli lahu tawaalifu lahu ashaaru raiqatun lana biha iftixaaru loolu kon doy na xam le ci Mame Baye la Mame Baye Niass dafa wax mu man ana kan kal xalifati mooy mel ni maam xalifa ñes radiallahu muy Muhammad Aminata mi ñuy waxtaane alladi ki nga xamee ne nii taallama dafa xam lu jàng lépp lum jàng nag mu ngi ko jàngee ci ñeent nga boole si baayam muy juróom ci alquran waaye nag boo duggee ci xam-xam nag moom ah day benn sëriñ lay am mooy ma alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu waaye bu dee ci alquran nag moom loolu danaa ci ñëw mhm. mooy tudd sëriñam yi nga xam ne nii jàngal nañ ko alquran ndax loolu dana am solo ci waxtaan wi mhm. waaye ah, comme dañoo bëgg a firi waxi maam Baay Niass jooju mu ne kan mooy ku mel ni maam Khalifa Niass radiyallahu mi nga xam ne nii dafa jànge xam-xam ci ma alaaji Abdoulaye Niass minhu googa ci ma alaaji lay dellu waaye ci moom itam la làqe ak jiital ma alaaji moo ko jiital ma alaaji moo ko samp mhm. jiital ko samp nekk na fi di dund samp ko wan nit ñi ne leen lépp xalifa mii laa leen bàyyeeg lépp lu ngeen laaj na ngeen ko laaj ndax booba jàngal na ko maalaaj ku yàlla mayoon la mu bari woon ay téere donte nag doon nañ lakk ay téere doon nañ ko final doon nañ ko sono waaye téere da koo jaraloon lu ne fu ne la daan dem lu téere waaye naar tam téere bu ñu andi bu ñëwee mu jënd ko dafa amoon téere nag te téere buy nit di jàng ci daaraam bu moo xam maam Khalifa démb la daloon ci àllarba ji wala dimanche ndax Maalaaji Abdoulaye Niass daaraam dimanche ak àllarba la ñuy dal téere mhm. maam Khalifa dimanche la ñu doon dal téere mhm. ku ñëw di dal téere itam mu ne ana Khalifa utal téere boobu nga ànd ak moom ku ñëw di jàng waaw lu téere yi bëri bëri moom maam Khalifa noonu la doon jàng Maalaaji li mu amoon ci téere yëpp bibliothèque am yëpp mhm. maam Khalifa amul benn baat bu ne ci téereem te maam Khalifa tegul ci bëtam ndax Maalaaji lu mu doon liir lépp maam xalifa lay toog muy liir muy dégg mhm. waaw nga xam ne ni moom kon daf koo defar préparé ko bu baax a baax nag moo tax maam Baay Ñas ne wa minhu qad hawat taqadduma mhm. mu ne ay najlahul mu ne mooy doomam ju mag ji mhm. mooy doomam ju mooy mooy mooy taawam kon moom mooy taaw maalaaji Abdoulaye Ñas waaye maam Baay Ñas ne kooku mooy géeju mu ne maam xalifa mooy géeju xam de mu ne moom dafa kawe ñëpp ba faaqa fi sixari kullal xaw mi mu bi mu nekk ndaw la kawe gaa ñëpp mu ne kooku boo ko xamul mooy ki nga xam ne nii dafa défendral Seydina Cheikh radiallahu anhu mooy radda an cheikh yi alal fuhuuli nag xam nga mën ngaa defaral Seydina Seydina Cheikh nga défendral ko si ay ñoxor xob <laughs> waaye maam Bañes mu ne maam Khalifa dafa défendral Seydina si ay kuy borom xam-xam ay ponkal yoo xam ne nii dañ doon contre Seydina seex ak di bind jàpp ne mën nañoo nasaxal tarixa Tidiane waaye maam Bañes ne bu maam Khalifa pare si ñoom wa sa yaral alima kal jahud day mujj kooku nekkoon borom xam-xam day mel ni ab kuréer mhm. mu ne nag lahu tawaalif maam xalifa am na ay taalif yu bëri nag ci yonent bi sallallahu alayhi ak ci seexu tijaan ak ci wëlli yàlla yi mu jamono wante ku ci mel ni Seydi Ahmad Sukari ji mhm. ak ñeneen ñoo xam ne nii mhm. bind na ci ñoom ay way yu rafet ndax ku nekk koo xam ne nii lu rafet nekk ci yow lu rafet moom ngay moom ngay wax ci ñëpp lu rafet moom la wax ci maam Alaaji Maalik Si lu rafet moom la wax ci maam Serigne Touba ci ñoom lu rafet rek la wax ci ñoom mu ne lahu tawaalifu lahu ashaaru maam Bañes mu ne ku bëri ay way la maam Khalifa am na ay way yoo xam ne nii raayxatun yu yéeme la nga xam ne nii lanaa ñeel nañu bihaa ci way yooyu iftixaaru ak mu ne maam Khalifa am na ay way yoo xam ne nii loola ñun mën nañ koo puukarihu waaw maam Khalifa dafa def ci way loo xam ne nii képp ku bokk moom mën nga koo puukarihu danaa ci indi benn dafa am lu loo xam ne nii tey nga xam ne tey Euh, si nu ma ko mën a tuddee maanaam lu ñu tuddee boo jàngee boo jàngee balaaxa ci ñetteelu fànn ba badin am na lu ñuy wax xadbu nga xam ne bokk na ci ndollantu euh, imaamu suyuti yi boo demee ci xonqadul jumaan danu ko indi nga xam ne lu raar la nga gis waykat yi di ko def maam xalifa nag daf say def loo xam ne nii mm-hmm. euh, boo xoolee ku mel ni mutanabbi mm-hmm. andi na ci benn bayit muy zur daara wuddin in aratta wuruda zaaduuka aw an ra'awka waduuda mm-hmm. mutanabbi daf ne maanaam zur boo xoolee lu ma ci jublu rek mooy da ani benn bayit boo xam ne nii araf yëpp amul benn baat boo xam ne nii ñaari araf yi taqaloo nañ boo ko dalee ci bi nga commencé ba araf bu mujj ba amul benn araf bu taqaloo morom ka muy zur daara wuddin in aratta wuru daa demal nga ziyaare këru cofeel boo nammee root mu tana bii mu ne zaadu ko wuddan ñooñu danañ la dolli ak cofeel an ra aw ka wadu comme ñoom ñoo la gis nga nekk soppaakoon waaw xam nga loolu lu raar la mm-hmm. xolo bayit bi wax nga ci sa soxla ba pare mm-hmm. waaye benn araf benn baat boo xam ne ni ay arafam dañoo taqaloo amut léegi loolu ñu tuddee ko xadfu nga xamee ne ni tey euh, soo xoolee même imam Suyuti moom it indi na ci moom bokk na si ñi nga xam ne ni ñu fooroon lañ ci fànn balaax indi na ci benn bayit la ci indi muy rawit wadum wa arix radidda wa widda wazir wazri wa waali dawaa dawaa maana wasri wa waali dawaa daa a wasid wa rum nga xam ne kon moom imaam suyuti moom it nee na góorgóorlu na ba indi ci benn bayit nga xam ne ni yëpp ay amar lay doon moom yi mu yëpp ay amar lay doon nga gis ne kon loolu euh, lu raar la nga gis ko ci ci ci ci fànn balaaxa ñoom ñuy def lu mel noonu ndax ndax jafe gi jafe nga mën see wax maanaam mu yegg kon loolu dafa bokk ci li nga xam ne ni mën nañ koo tuddee Euh, tey si misaal bu doon alquran la dañ koy tuddee injaas maanaam mu bokk si <coughs> injaasul quran hmm. waaye léegi nag boo demee ci balaaxa euh, mu nekk loo xam ne nii lu raar la ñu ko def waaye mu nekk loo xam ne nii lu jafe la ñu ko def hmm. am na benn bayit bu mu ci indi boo xam ne nii euh, moom it ci ci baxru tawil la waykat ba ne zur daara zar zurin wa daara zararata wa zur radaa in aratta dawaa moom it mu indi ci benn bayt boobu waaye nag xoola maam Khalifa Niass radiallahu anhu moom maanaam moom daf see def loo xam ne nii moom kenn moo ko si def te mu defee ko tak ci anam boo xam ne ni bu am maanaa la di nettali ziyaara yoonu baayam ma alaaji Abdoulaye Niass ziyaara gi mi dem ziyaara ji Seexna Ahmada Tijaani Sharif radiallahu anhu ci yoonu faasam maam Khalifa Niass radiallahu daf cee daf cee wax ne zaara zawri maanaam di nettali ziyaara boo xam ne nii ma alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu am na ko ci ziyaara ji Seexna Ahmada Tijaani Sharif radiyallahu anhu mu indi ci ñaari bayit nag muy zaara zawri wasdaada wuddan wa wirdan mu ne zaara ziyaara na ma alaaji Abdoulaye Niass mooy zawri mooy sama sang mu ne daada mu dolleeku wirdan ah, mu dolleeku fa maanaam wirdan cofeel wa wirdan waaye mu doolee ko fa itam ak wirdo mooy doolee ko na fa si wàllu cofeel waaye doolee ko na fa itam ci wàllu wirdo mooy kon maalaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu siyaaram boobu noonu doolee ko na fa ci cofeel waaye doolee na fa itam wirdo muy bi mu siyaara Seexna Ahmad Tijaani Sharif radiyallahu anhu mu ne war awaa maalaaji Abdoulaye Niass naan na fa ba màndi idra aahu ba nga xamee ni nii jàppee na Seexna Ahmad Tijaani Sharif radiyallahu anhu waxut gis ak bët nii rek waaye gisul jàppee mu gis Seex na Ahmad Tijaani Sariif radiyallaahu jàppee ko durran wurusu durru wa wardan ak gëtt ak ward xam nga moom andi na benn bayit su ko neexoon ne kon léegi taxaw naa ci baxru basit yemoon naa ak gaay xalaas waaye déedéet mu daal di continuer mu ne wa widaadu aalin dawaa un wa mu jëlee fa itam cofeelug ñooñ Seex na Ahmad Tijaani Sariif radiyallaahu anhu waaye cofeel ak lépp lu bokk ci Yonent bi sallallaahu alayhi wa gu gën a dooleeku waaye jëlee fa saafara itam ndax maa laaj bi muy dem siyaara ji Seydina Cheikh radiyallahu anhu te loolu moo sabab ziyaara bii ñu war a waxtaanee bokk na ci li ko sababoon mooy am na feebar bu nekkoon ci yaramam xawoon ko sonal bokkoon na ci lu mu bëggoon mu saafara jiwaale waaye jëlee na fa saafara boobu ñu ngi ci ñëw ci kanam tuuti <laughs> tay eh, jasaakallahu xeyran Cheikh Ousmane Sylla Kow Kow mel na ni eh, leeral nga ñu ne maam xalifa yàgg na boo xamee ne xamee nañ ko ci addina bi yëpp ci xam-xam yàgg nañ ko reconnaître it ci biti ndax wane nga ne saa bu demee Maroc xalifal actuel bii nekk fa ñu ngi ko daa dàkkantele borom turu màgg bi kooku kon mel na ni li màgg te bàyyeekoo ci moom te bu tukkee ñu de koo ko laaj loolu firnde la bi ci des wax nga ne eh, li ñuy li ñuy dëgmal war cee yegg lu am solo la ñu war a bàyyi xel ndax fu ñuy fàttalikoo borom baax yi yërmande yàlla dafay wàcc te même bu fekkoon sax xalal fard ne yërmande yàlla wàcc fa bu fekkee ñi nga xam ne amuñu mbaax ñoo am sañ-sañ di fàttaliku ñeneen ñi am mbaax rawati kon wax nga ne euh, waxtaanee wàllu yàlla yi comme ni ko Abdou waxee mbir la moo xam ne mu mag la donte na nga xàmmee wàllu yàlla jafe na trop mm-hmm. euh, loolu nag ci nga indi ne maam Khalifa dund na juróom-ñetti fukki at dundab juróom-ñetti fukki nag boo xam ne lépp njariñ la lépp xam-xam la lépp jaamu yàlla la loolu yombul wax nga ne moom mu mun a feddali nga ne càngaan waxoon ci weeru koor la gane àddina mm-hmm. jëlee tariqa bi ci Ibrahima Thiam Keleel mm-hmm. mu bokk ci ñi ko doon jàngal baayam moo jëlee tariqa baayam moo baayam jëlee ko ci Ibrahima Thiam Keleel mm-hmm. wax nga ne euh, maam xalifa mi am na ay taalifaat yu bëri mhm. te loola Cheikh euh, Alaaji Ibrahima Niass firndeel na ko mhm. bi nga xamee ne men na ni gars yi dañuy bàkk kenn ku ne di bàkk askan wa nga bokk mhm. ware woon ne askan wi mu bokk kenn mënu cee am lañ am ñoom te ba mu demee di wax xalifa la joxoñ wane fi mu toll ci xam-xam fi mu toll ci taalif te ak fi mu ci jàkkaarlook ay borom xam-xam du jàkkaarloog sax ñu ngi ko tuddee ay mbojo mbojo ñu mag lay jàkkaarloot ñu tuddee ñu mag ca ñooma mais comme ci jàkkaarloo pare nga doon ko tuuti kon mel na ni kooku doonu toon nit ko xaku simple borom xam-xam la woon eh, kon mel na ni jëmm jooju moom lañ war a jagleel ab siyaara ci la ñëw ci question boobu eh, Jibril Congaan eh, Seexul Xalifa Mouhamad Aminata Niass dañ ko war a jagleel ab siyaara luy bu tax ñi di ko jagleel siyaara boobu lu mu def ba ma mérite boobu. d'accord jërëjëf oustaz euh, sama sëriñ bi junj na ko sànq Ousmane Sylla kaw kaw. Hmm. dafa bokk ci ponk tarixa tijaaniya sëriñ bi la jox wirda at bu jot nga siyaare ji ko benn yoon soo ko mënee siyaare ji lu bari nag moo gën ndax nga mën di tëbb ci moom ndax nit ki bu leen yàlla jokkulee da ngeen war di gisee rawatina koo xamante ne nag sa wasila la ci yoonu yàlla ndax nit ki toujours dafa war di doon lekk xam-xam toujours dañ ko war di fàttali ndax alxuraan moo ne fa zakir in nafaati zikra te jooju jamono jooju si mag ñi nekk fa borom xam-xam yi bari woon nañ waaye waa euh, euh, li euh, toog toog di def wax waxtaan ci xam-xam moom moo xawoon a tumuranke lu ko waraloon mooy jamono ji jafe ci dund ci bay ci néew doole léegi nag Alaaji Abdoulaye Niass pour bëgg noppal taaliba yi pour bëgg noppal ñi nga xamante ni dañ ko sopp mu ni leen comme bokk na ci ponki tarixa bi ndax ponk tarixe bi ñaar fukki ponk la ak ñett bokk na ca ponk juróomeel ba ci lañuy wax ne na nga ki la jox wirdu wi na nga ko sopp te nga di ko siyaare ci bis bu génnee àdduna ki nekk xalifaam kooku mooy sa sëriñ léegi nag maam El Hadj Abdoulaye Niass dem Faas ñëw maam Khalifa Niass ak rakkam yi maam Safion Niass maam Ba ñëw siyaare si bi laa Niass ak mbooleem muqaddam yi ak taalib yi ba ñëwee siyaare si ko nag ah mu nangu leen siyaare bi jox leen ci ndigal ba mujj gi sax ne wax nañ ne ci siyaare bi après dem après ba maam euh, kii woon na arrêté woon nañ ko ab distance ab diir léegi nag ci la maam Khalifa Niass nag mais comme taalib yi dañuy bëgg di indi seen xaddiyee gerte yi ak seen dugub yi di ma ko indil ngir li leen tënk bi tari li leen tariqa bi tënk ci ñu war a siyaara ji seen sëriñ léegi dama bëggoon ñu def ko benn ziyaara bu ko defee bu gàmmu jotee yéen ñëpp mën ngeen gàmmu ci seen dëkk yi comme jooju jamono war a waay xamut ma bañ leen a sonn <coughs> bu siyaara jotee nag may mu ndigal kenn mu toog këram na ñëpp bàyyi li ñuy def ñëw ñëw siyaara si loolu mooy sababu ñu koy siyaara si bu dee ci lislaam nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo jàngale ne nañuy siyaare ji suñ mbokk jullit moo tax wax na ne képp koo xam ne siyaare ji nga ma si Medina moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne euh, si yàlla jégal na la sa mbolim bàkkaar mu waxaat ne euh, euh, ci addis ba ndeysaan wax na wax na mu waxaat ci beneen addis mu waxaat ci addis addis bu am solo sax nee na xaqat mahabati loola bëggoon indi lil mutazawirina fillah sama cofeel jaadu na ci ñi nga xamante ni dañuy seerante te yàlla rek a tax te gis nga wante ci te yàlla rekk tax day dindi mbañeel day yokk ci fel te itam dana tax loolu réeroon nga xamee ko ci yonent bi nee na xaqat mahabati sama cofeel jaadu na li mutazawirina ci ñi nga xam ne ñu ngi sayaarane siyaarewante ci yàlla tax waaye mucc de mu ne xaqat sama cofeel jaadu na li euh, euh, lil mutahabina fillah ñi nga xam dañuy bëggante te yàlla rek tax waaye xemu ci sax mu ne xaqat mahabati ba tey lil mutabazilina ñi nga xamante ni dañuy dimbalante yàlla tax te ziyaara ñett yooyu yëpp moo fay dajee ndax da fa dajee mbokk boo xam ne gëju nga ko gis mbokk moo xam ne mbokk la soppe la nga saafuwante ak moom léegi yëkkati sa hadiya jox te yéen waxoon na ne soo dajee sa mbokk jullit soo amuloo yëkkati jox ko pour xolam sedd sa kanam gën a yaañ ci nga dajee sa mbokk jullit ci siyaare ko nag saafuwante ak moom nga reetaan mu reen nga kontaan soo ko yëkkatee jox ko mu gën a kontaan loolu yol yi bu kenn xamul nu mu toll kon bu ko defee cofeel gi gën a te xam nga julli dañoo war a bëggante alxuraan loolu ñu jàngaloon nañ nekk benn te ñu te ñu bëggante nekk benn waaw léegi nag sallallahu alayhi wa sallam mu ne boo amut loo jox sa mbokk boo jàkkaarloo moom sa kanam gi na yànj te yaakaar naa ne ziyaara pour lu ko tax a jóg mooy defaraat xol yi masalan bu fekkoon nit ñaa ngi xañaan di ko jëflante ci seen biir nit ñaa ngi soxor di ko jëflante ci seen biir nit ñaa ngi sàcc nit ñaa ngi mooy yàlla bu ñëwee nga war leen na leen su ngeen bëggee xam ay maqaama ci yàlla su ngeen bëggee xam ay dëkk ak ay ay seen nekkin fii ci rafet ci kaw suuf rafet neex bu yomal xam yàlla su leen il faut ngeen bàyyi bañante gi il faut ngeen bàyyi yàqante gi loolu moo tax a jóg siyaare bi bu ñu def ñëpp ñëwee ñu leen di waar di leen wax lan mooy alquran lan mooy hadis yi yonent bi Cheikh na Tidiane lan la indi bu ko defee ñu leen ciy jàngal képp ko wuññeeku na ah man nag tongoon naa diw waaye dana ko joxe loxo man nag meroon naa diw waaye dinaa ko lii la mag ñi moo taxoon Cheikh na Tidiane yi ne jël naa siyaare bi def ko ci sam ponk tarixa bi mu bokk ci ponk yi nga xamante nii képp ku la jox tarixa bi sa ah, uh, jaadu na met nga di ko siyaare ji waaye nag li nga xam ne mooy farata bi benn la ci at bi boo ko defee li si des yëpp na la lii moo waral nag xalifa si moom la ñes bii gàmmu tinki naa ñëpp waaye bu siyaare jotee moom mayuma kenn ndigal bu ko defee li ma li ma mën a takk li ma leen mën a takkee ma mën nañ ko takkee wax nañ am na benn muqaddamam bu yàlla mayoon moo ko waxoon na ko dal wi de salaatu fàtte lu bari dal wirda salaatul fatiha lu bëri. mu koy mu koy da mu ñëw siyaare si ko mu ne ko waaw góor waay li ma jàkkaarloo gi ma jàkkaarloo yow de fi nga toll sori na trop macha allah góorgóorlu gën la góorgóorlu mu ñaax ko mu dem mu dellu ba mu ñëwaatee mu gis ne li nekkoon ci moom wàññeeku dëñ na. mu ne ko sëñ bi li ma gisoon ko waaw dëgg la de sëñ bi temps yi day dama ñàkkoon jot bala ko feebar mu ne waaye boo demee gën la góorgóorlu waaye ñëwaatee mu ne ko ok lii laa bëgg. kon nga gis ne kon ñoom dañuy defar nit ki pour leeri yàlla yi di feeñ ci sa kanam di melxati ci sa kanam ndax leeri yàlla bi melxati ci sa kanam day tax lu baax rek ngay mën a def lu baax rek ngay mën a def xam nga leeri yàlla mooy gindi jaam yi mooy gindi jaam ñun ñi alxuraan yi ñuy référence nga xam ne moo ëpp leer moo tax ñun ku ñu gis moo tax ñun fu ñu toll di gindee ko kenn du ñu mën a nax léegi nag leeri yàlla yooyu na nit ki dafa gaaw fàtte ndax doomu aadama dañ ko bind ci fàtte léegi nag moo tax kon toujours nga di ko fàttali pour nga mën koy fàttali nag yow mi nga xam ne yaay sëriñam di borom xam-xam bi nga xamante ni ci yow lay tëbb si toujours da ngay bëgg muy ñëw li nga xamante rëcc na ko ci ginnaaw ci ay bàkkaar nga mën ko cee del a mën a mën a fóotaat xolam lii mooy sababu euh, ñuy defal ñuy defal siyaare bi xalifa taxaw si moom Ñas waaye mu ngi jiitu ci bàyyam alhaji Bila Ñas ndax maam alhaji bàyyam alhaji Bila Ñas dafa demoon na Tidiane Chérif yàgg di ko bayal tool ba mu demee ba di ko siyaare ji ndeysaan mu xamoon lu ko fa taxoon a jug nag mooy lijaatatu idlaq xeetu Cheikh na Tidiane karawu Cheikh na Tidiane kuréelu Cheikh na Tidiane ba muy dem mu ne nag du ma wax xalifa Cheikh na Tidiane bi li ma tax a jóg waaye Cheikh na Tidiane kon mooy sama sëriñ te xam naa ka kum lu mu doon moom moom moom moom sama sëriñ boobu moom da moo yow mi xalifaam dana la wax man nii li ma tax a moom alaaji Abdoulaye Niass ba mu ñëwee siyaare si nag mboolem lu mu am na ko fa ba mu fekkee ne boobu mi ngi àndoon taawu boobu di maam xalifa Niass moom mu jàlloon Màkka ba mu ñëwee nag dellu si fekk fi alaaji Abdoulaye Niass foofu ci seex na ti ci ci siyaare si Ahmed Tidiane Serif ba mu dal di ko yaxal wa zaara sayqiya fi faasin ala kibarin waaye walakin yuharrikuhu hubbul mulaqaati fa naala dalika yaqzanan wa saafaahu kan la baarul maarifi yanbaul karamaati mu ne sama sëriñ alaaji Abdoulaye Niass maam xalif ñi samay wax siyaare ji na sëriñam Cheikh na Tidiane Chérif radiallahu anhu fii Faas jamono jooju xalaa kébarin mu ngi nekk mag li ko taxoon a jóg la la walakin yuharrikuhu hubbul mulaaqa li mu bëggoon daal mooy dajeeg sopp bi mu Cheikh na Tidiane Chérif radiallahu anhu gis na ko wala gis na ko na mu ne ko na xam gis na ko fa naala dalika xam na li mu bëggoon yaqsaanan wa saafaahu mu saafante Cheikh na Tidiane kan la baxrul maarif yan baxrul karamaati kon nga gis ne kon ziar bi Alaaji Abdoulaye Niass moo ko njëkk a def ba mu béy ko fas nag ba mu ñëwee njaboot gi ñëw siyaar si ko taalibe yi muqaddam yëpp ñu continuer ko nag mu taxawaatoon ab distance léegi nag maam Safiou Niass bi rek maam Khalifa Niass àndaat ak doomi maam Khalifa Niass ak taalib yëpp ñu dekkalaat ko ba jamono ji loolu moo waral siyaare bi te mu mu nekk ci ponk yi nga ne ponk bi la ndax taaliba bu nekk sëriñ bi la jox wirdu bi ci tarixa tijaaniya at bu jot nga siyaare ji ko bi du ko ëppee na mu a baaxati oustaz Cheikh Tidiane bi tey lii mooy jërëjëf euh, Cheikh Jibril Thiongaan mel na ni wane nga ne bokk na ci sarti tarixa bi mhm. mooy sëriñ bu la may wirdu ñuy kon di ko siyaare mhm. te nga ne ñaar fukki sart yi ak juróom juróomeelu sart ba moo tënk loole Cheikh Alaaji Abdoulaye mu demee tukkeem ma ba ñibbisi ci la ko ak njabootam sosaloon ab siyaare siyaara boobu nag mel na ni moom la maam Khalifa doon wala moom lañ ko doonnal mhm. biñ ko ko doonnalee nag mu continuer ñu di ko ko defal mhm. di ko ko defal ba bés na ki tey mhm. wax nga ne eh, sunna yaxal na ne Eh, kuy siyaare jaam waliwu yàlla danga nga am mahaba yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. wane nga ne te nit ñu baax ñooñu mm-hmm. di leen siyaare dafay yokk ak leer mm-hmm. mel ni nit ki day yokk courant day yokk tëbboom eh, mu mel ni eh, bu fekkee dégg naa la baayam moom moo ko jiitu woon ci lii gi ñu ne ko ko defal ndax diir biñ ko ko defalee ak léegi mën nga takk ñaataat la wala jàppaloo ko waaw ci xayma ndax euh, mille mille neuf cent vingt deux ci la bàyyam alaaji naaji génn àdduna ba mu génnee àdduna nag ci mille neuf cent vingt deux boobu hmm. taalib yëpp ci la ñu ñëw ànd ak seen i muxaddam ñëw di jaayante moom foo lañ sa so siyaare bi kon 1922 ba tey ba jamono bi ñu ko koy ji waaw day nekk téeméeri at ak benn jërëjëf euh, Oustaz ma ñëw ci yow encore hmm. euh, doon nga ci commencé dugg léegi hmm. lan mooy sabab yu tax ñu jagleel Seyxul Xalifa Mouhamad Aminata Niass ziyaare bi ñu koy defal nga xam ne at mu jot ay wufuud min talaamis wala talaba wala ahiba dañuy dajee ci ñeseen lew na di ko siyaare lu sabab boobu maa saalika suñu xamee sabab ba pare looy tontu ñi nga xam ne ñi koy dem di ko defi dañ leen i dañ leen i bidaaloo di leen baàgg ci àdd takk loo sax ne leen li ñuy defoo duñ ko def amul amul cësluwaay ci diine waa jërëjëf saas bi tey macha allah jërëjëf sëriñ congaan Euh, bi tey ziyaara bi maa alaaji Abdoulaye Niass radiallahu anhu comme niñ ko xamee woon rek ci cofeelam ci Seexna Ahmada Tidiane Chérif radiallahu anhu bi maam Khalifa Niass amee 30 ans uh-huh. ñoom ñaar dañoo ànd jóge fii senegal ànd ba taasa waaw maa alaaji Abdoulaye Niass radiallahu anhu jàdd dem siyaara ji Seydina Cheikh radiallahu anhu moom ñenn ci ñu mu àndatoo nag uh-huh. maam Khalifa Niass radiallahu moom boobu la continuer dem aji màkk uh-huh. ñu wàññeekoo nag ñu wut faas maalaaji Abdoulaye Niass radiyallaahu nag bi muy dem Faas boobu magee na comme ni ko maam Xalifa waxee man hajja lillaahi baytallaahi muhtasiban loolu mu jiitu waaye nag wazaara fii taybatin xayral bariyaati wazaara cheikhe fii fas ala kibarin faas moom bi muy dem booba la mage waaye bi muy dem màkk moom booba ay 43 ans yooyu la am moom maalaaji Abdoulaye Niass radiyallaahu waaye nag bi muy dem Faas nag mhm. boobu fekk na mu mu jege soixante-dix ans xam mhm. nga kon mage na moo tax maam xalifa ne man xajja lillaahi baytallaahi muhtasiban mhm. wazaara fi taybatin xayral bariyaati loolu moom booba magee gudd noonu ba am coono bi muy aji waaye bi muy aji waaye nag wazaara cheikhiya fii faasin ala kibarin ala bi maanaam maa comme soo jàngi borom muqaddimatul bokk na ci maa maana ala maana yi mu yor day ñëw di yor maanaam maa dem na ziyaara ji Seydina Cheikh radiyallahu anhu ca Faas waxuma ziyaara ak baatin wala yónnee naa ko wala bëgg naa ko wala gént naa ko yooyu ziyaara jëmm ak jëmm ma alaaji Abdoulaye ala kibarin nag uh-huh. ànd ak mage muy uh-huh. wazaara cheikh fii Faasin ala kibarin ñi ne ko lu tax loolu ak ni mu nekkee mag ak coono yi mu doon dund mu ne laakin yu xarrikuhu hubbul mulaqaati waaw cofeel gi nekk si bëgg a dajee dana yëngal nit ba may la kàttan goo xam ne sax amu ko woon ndax innal mahabbati iksirun tajburul kasir wa tafakkul asir wa bihal asiru yasir maanaam lu jafe lu nekk sa la yombee kon moom siyaara googu mu siyaara joon Seexna Ahmada Tijaani Chérif radiyallaahu anhu bi mu ñëwee ay taalibeem fu ñu mën di nekk ñu nekk Fuutaak ñu nekk Jolof ñu nekk Bawal ñu nekk Saalum ba ñu nekk Gambi maa alaaji ku bëri woon ay taalibe la ba ci ñuy jógee Mauritanie dafa amoon ay taalibe Mauritanien ñi ñëw di ko bindal mu leen di jàngal ñu bind ay téere di taalib kon maa alaaji mhm. ñooñu ñëpp dañ doon ñëw di ko siyaara si uh-huh. waaw siyaaram boobu uh-huh. yàlla daf ko see may bi mu demee Cheikh na Ahmada Tidiane Chérif radiyallahu anhu saafawante nag moom taalibim bu ñuy wax tafsir Moustapha Thiam de kon Fouta wax na ko nee na taaba nafsi uh-huh. li dal janabil axsi an imamin haazal kamala dalila mu ne man de am na teeg bakkan ci sama côté ndax jàpp gi ma jàpp ci imam boo xam ne nii ak mat mooy tegtalam muy sa muy ma alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu mu ne daaka abdul ilahi ruuhu fuaadi xajja bil bayti zaara yarjul qabula mu ne kooku mooy sama ruuhu xol mooy ma alaaji abdoulaye ñas radiallahu anhu kooku nga xam ne ni aj na sa kaaba ga waaye ziyaara na itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam am yaakaar ci nangu yàlla waaye mu ne zaara xutbal wujudi saafaxa cheikhi mu ne kooku siyaara na xutbu xutbu mindee fi muy sax na amati yenn sharif radiallahu anhu waaye mu teg sa ne saafaxa cheikhi xaalisal wuddi mu ne nag fekk boobu mu ngi ànd ak cofeel gu sell cofeel gu set wecc gu dara raxut Seex na Ahmad Tijaani Sariif radiyallaahu gu set mu ne nag laa taxal da muhaala li mu wax ne saafaha Seex moom tafsir Mustafa mu ne maalaaji bi mu demee siyaar yi faax saafahante nag Seex na Ahmad Tijaani Sariif xam nga saafaha moom mhm. alos ni faaxal loolu kenn du ko def mhm. kon am na koo saafawanteeg mhm. mu ne loolu nag laa taxal da muhaala bul jàpp ne lii lu jomb la mu ne loolu nekkul lu jomb yàlla mën na ko di di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettalee ne ci ay ahadis yu wér yonent yàlla Moussa est-ce que moom yonent yàlla Adama alayhi salaam fekkante nañ jamono boo demee ci téere addis yi de gars yi ñu ngi koy jàng ñoom ñaar ñiy waxtaan yonent bi di nettali seen werante ba ba addis ba di daan yonent bi ne fa xajja aadama Moussa yonent yàlla Adama yeena yonent yàlla Moussa loolu de lu wér la mu ngi ci addis yi kon siyaara boobu nag mu defoon fekk boobu maam Khalifa mu ngi am 30 ans loolu nag mu ngi nekk côté 1911 1900 1911. maalaaji nag bu muy dem jugeewutoon fii Sénégal. bu fekkee wax naa ne dañoo jugee Kaolack xam naa ne. Sappolisaan la njuumte lay doon Gàmbi lañ jugee woon ndax Gàmbi nekk na fukki at. waaw doon fa tafsir alquran yëpp. maalaaji Gàmbi tafsiral na fa alquran. ba tafsiral ba ba ba teg loxoom koo xam ne nii dafa fekkee tafsiru alquranam rek juróom benn yoon la fekkee tafsiru maalaaji. mujj kooku mënutoon a bind turam de boo hmm. bindee turam mënu koo liir ñu maam dee na xoroja waaye si barke ma alaaji teg gi mu koy teg loxo di tafsir juróom benni at hmm. mu dem ba ma alaaji bu mu gisatul ma alaaji juróom benn ñaareelu yoon ba mu fekkee beneen tafsir genn góor hmm. góor googu moo tafsiral tamsir dem ba mbay ak ñoom ma alaaji abdu ñaan góor googu nag bi muy tafsir ki ma alaaji doon teg loxoom ñëw toog di déglu xam nga léegoo léeg am na koo xam ne nii su toogee sa tafsir rek problème dikkal na ah, góor gi nag lu mu tafsir ba dugg ci ay xissa rek bu waxee lu wuuteeg la wér rek uh-huh. waa ji yëkkati loxoom donte nag moom mënutoon a bind turam uh-huh. mënutoon a lii turam maam dee na xoroj uh-huh. bu yëkkatee loxoom góor gi mu ne ko ah man maa alaaji waxatoon ma lii de <laughs> góor gi ne maa alaaji lu mu la waxoon mu daal di nettali nettali mu ne ko loolu nag moo wér su lu lu góor gi nettali rek ba góor gi pare nag ñi mu doon metteelal ñi mu doon defal metteel ñi nga xam ne nii ñoom la ñu war a defal metteel ñu nekk ay kilifa mën a tafsir alquran mu boole waale te loolu mu ko amee ci barke teewee tafsiru ma alaaji ma alaaji daan ko teg loxoom niir buy tafsir léegi nag lu ma doon wax sax foofu la ma alaaji jugee kon loolu laa bëggoon wax rek ah. ma alaaji foofu la jógee dem siyaara ji Seex na Ahmad Tijaani Sharif radiyallaahu anhu bi mu ñëwee yoon wu gudd la waaye dañuy tënk ndax temps bi bi mu ñëwee nag nit ñi di ñëw di ko ndokkeel si ak di ko siyaara si moom si barke siyaara gi mu siyaara Seex na Ahmad kon ma alaaji la nit ñi doon siyaara si ba ci doomam taawam di taalibe maam Khalifa Niass radiyallahu bokk si ñi koy siyaara si ak rakkam bu ñu doon wax Mohamad Safion Niass siyaara bi nag comme ni ko congaan waxee dem na ba mel ni lu arrêté woon rakkam boobu nga xam ne da ko doon dimbale ne nekkoon jëwrinam yoo xam ne nii dafa dafa dafa dafa buggoon maam Khalifa mhm. waaye daf ko doon conseil ci lu bëri ba ci lu bëri bëri loo xam ne moo si doon dugal maam Khalifa spécial mhm. di ko def chaque année. Mhm. ndax ndax ndax gëj a gisante gi mhm. ci mbedd mi rek géej naa laa gis gëj naa laa dégg loolu rek jar na daje. Mhm. Ah. waxatuma laa lu toll nii lii. bu ko defee ñiy daje taalibe yi ñëw. ziyaara boobu nag maam Khalifa da ci daan defar lu bëri. ñu teewoon a am doom bu ñu ñëwee sa leen ñaanee ñu sala leen ñaanalee ñu am doom ñu doon tux bu ñëwee bu ñu naanee foofu noonu duñ tuxati. maam Khalifa yàlla daf ko mayoon. lekk ni boolu lekkam bu taajaan di lekk daaw lekk tëju biir lekk biir déedéet ci ëtt bi noonu ci buntu mbaar mi rek. ñëpp mécanicien yeeg ministre bi waaye yeeg ñëpp bu ñu ñëwee toog bokk moom lekk dootoo tuxati bokk moom lekk dootoo naanati sàngara lekk moo tax amul tëju boo fa ñëwee naan dama koy jéem a tibbal damay nëbbu lii sax wala nangam boo paree mu ne bu ëllëgee bul ko defati nag doomu alaaj Ibrahima Niass doon na ko def si dundam ba benn bis mu yërëm maam xalifa ci bokkaate gi mu bokkaate nit ñi ndax mm-hmm. bu ñëwee day bokk nit ñi su mbaloo ñëpp comme ñëpp mm-hmm. ba benn bis mu koy jéem a tibbal di ko làqal yooyu noonu mhm. mu ne ko ay gan lay tibbal bi mu paree mu ne ko man lekk gi lu ma si am doy na ma bu ëllëgee bul ko defati mhm. daal di waa ñu bari bokk ñoom loolu <laughs> yàlla daf ko mayoon ba ndesitu guróom mhm. daawoon ko sànni ndesitu guroom kenn daaw ko sànni bu yeyaan guru ba mokk joosit yooyu noonu dañ koy teg kuy tux buñ ko ko joxee day ba tux dootu ko laalati kuy naan ba màndi naan sàngara dootu mànditi jigéen ju am problème mu am doom bu ñëwee bu demee réglé wu na biir buy métti bu te a wér bu ñëwee saafara woon loolu yàlla moo ko mën xam nga loolu ku gëm moo ko mën a gëm mhm. ku gëm wilaay moo mën a gëm loolu mhm. léegi nag am boobu maam Safiou Niass ne ko nañuy def ziyaara boobu nag bu ko defee chaque année nit ñi di ci daje siyaara bi daal siyaara faju aajo la daal ci saayir ak si baatin yëpp nag tay léegi mel na ni eh, maam xalifa dafa doon sunna su baayam suñ doon defal baayam mhm. baayam lañu sasaloon loolu doon ko ko siyaare gannaaw bu mu jógee ko ci am tukkeem maam xalifa bokkoon ci ña ko ko doon defal mhm. bi fi bàyyam jógee ko mhm. moom it ñu di ko ko defal mhm. mu doon siyaare boo xam ne ni la déggee siyaara xarbaax la siyaara faj aajo la siyaara rek la ay soxla la loolu ñu jëlee ko ci sayxul xalifa ba saa su ñuy wax ak yow léegi nag lu mel nii nga tudd nii ci la ci nekk ci ay njëriñ ak xarbaax la fay dajee ci ay jaami yàlla ay borom baax nga xam ne dajeeg ñoom rek waroon na jaar dagg paas dem looy tontu ñi ko ñi koy dàq nag waruñu koo def ndax saxut ci diin waaw ñiy dàq ne dañoo war a wante benn dañoo weddi loo xam ne ni njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bi si boppam daf daan jóg di ziyaara ji yeneen mbokki saxaaba yi ba ci ku feebar ziyaarawante moom kenn mënu ko tere beneen bi itam jóg distance dem beneen dëkk defi ko fa loolu yonent bi ko yàlla tere ko ñu kay tere ndax dañuy wax ne ñu ne bu leen takk seen laxas lu ñetti barab yi nii waaw waaye ñoom kanaa kon bu fekkee ne loolu kon ñoom jërul ñuy dem jër fi ñu toog la ñu toog jërul ñuy dem benn réew fu may ñetti barab yooyu noonu muy Baytul Maqdis mhm. mhm. pour laxas dem julli ji fa la maanaam nga xam ne ni da nga da nga ne damay laxas pour dem julli ji dong boobaa nekkut farata nga ne da nga maanaam nekkut comme ni nga jàngale ci téere fiq yi loolu ma bañ say guddal noonu mhm. waaye lu may tontu ñooñu rek mooy wàllu ziyaarawante lu baax la yàlla nangu na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nangu na ko nit ñi dafa bokk si teraanga bi leen yàlla defal malaayka yi li ñu foor foor amuñ loolu malaayka yi amuñ Seydina Jibril alayhi salaam naan xaaral ma dem dimbale Mikaayil si lee dem ziyaara ji ko nemmeeku ko déggoon naa tawat na wala naa loolu amul ci malaayka yi loolu nit ñi ñoo ko am loolu teraanga la yàlla moo innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum na ngeen yéwénal mbokkoo googu mbokkoo googu nag ci wàllu mbokkoo zahir ak ci wàllu mbokkoo baatin même bu ngeen mbokkoo ci yàlla yaak sëriñ bi mhm. ndax mu ngi lay jëriñ ci yàlla nga dem ziyaara ji ko waaw mhm. ah. ziyaara wante googu dafa bokk si li yéwénal mbokkoo googu ah. jërëjëf wax nga lu am solo mooy ne eh, malaaka amut ko mhm. kon mel ni doomu aadama afdalee gi ko yàlla jox ci la liy feeñee ci biir af liggéey suñ bopp it faaw ñu nangu ne yàlla ba mu bindee nit ñi moo wax ne rafa baadum fawqa baadin darajaatin lool faaw ñu nangu ko mm-hmm. te képp ku koy bañ it mm-hmm. dañ la ko def nga nangu ko ndax dana am ko dikk jox la cërëb mm-hmm. yaa ma féetee ko nga nangu ko boo ko nangulee ñox la yaa ma féetee ko war nga ko nangul keneen te xam ne moom yàlla moo bind yemanu dafa jël ñi teg nii tey la koy defal itam dañuy bàyyi ay distance ñëw ci yow tey euh, Jibril ñu ñëw ci taalifaati Mouhamad Aminata Niass maam Khalifa Niass ndax am na ay taalifaat yu tasaaroo ci bibliothèque yi ci àddina bi yoo xam ne mën nga ñu koo tuddal ñu xam da nga koy làmb daj ko waxuma rek am na ay taalif ah. mm-hmm. waaw sa Cheikh bi te maam Khalifa ay taalifam bëri na mm. kii na ko sànq ci wayu maam Baye Niass bi seexal al Islam wax ne ko loo ashaaru asaarun yooyu wayam yooyu mm. bëri na lool lool lool lool euh, mën ngaa wax ne sax nga gis ko ku fi ëppale doo wax ci Afrique waaye doo wax itam Europe kon nga gis koo ko ëppale ci ay taalif lu néew la. Hmm. boo compter benn ñaar ñett ndax fii si senegal rek buñ ne euh, am na koo ko ëppalee lu ñu woy ci yonent bi ak Cheikh na Tidiane wala ñu lu ñu taalif rek euh, li ma sonnoon gëstu dañ ne kenn rek moo ko ci jiitoogu mi si Ahmadou Bamba bu ko moyee moom a ëpp lu taalif fii ci Afrique ci euh, Afrique nit ku ñuul maam Khalifa Niass taalif na ay téere yu limoo limu ba pare teel taalif na ndax bi muy am ñaar fukki la taalif ñaar fukki at waaw waaw téere bi bi nga xamante ni saxal nañ ko di ko jàngi ci ñaar fukki ko taalif mm. waaye nag avant ñaar fukki at taalif na ay téere bàyyam daan koy sul ndax da ko daan wax ne que bukki fu mu jiitoo ci gédd ba rek bayi duñ juf si mm. loolu moo tax lu mos a taalif rek maam xali bàyyam alhamdulilah ñes jël di jël téere bu téere yi sul ko ba mu amee ñaar fukki nag ci la taalif benn téere bu mu tuddee bu ñu tuddee naylul maraam te naylul maraam googu sax ki ko tuddee mooy bàyyam alhamdulilah ñes mm. ndax dafa téere bi làqu ko làkk ko baayam ba téere bi pare mu door ko fekk baayam ma ngi ca Koosi moom ma ngi ca di jàngale léegi nag mun a téere bi pare na làq naa ko sama papa ba gisul ko dama bëggoon nag moom moo koy ngénte moom moo koy jox tur ci la nag euh, baye ko ca Kaolack dem ca Koosi fekk fa Alaaji Daañes ba mu mu won ko téere bi mu ko yow Mouhamed kañ nga daan bind te wanoo ma ko mu ne ko bàyyi damaa yaakaar ne tënaa moo tax ma ma bind te wanuma la ko mu ne ko nag damaa ñëwoon rek pour nga joxal ma ko tur maam Khalifa Niass toog fa trois jours maam El Hadj Abdoulaye Niass joxul ko tur bi ba mu yaakaar bàyyam da ko fàtte sax mu far di wax rakkam ja fa rakkam ja rakkam jam fa nekkutoon na ko dama la wax bàyyi na ko maa ngi bëgg a dem dellu ci daara ji amul ku fa xaar de pour turu kii bi. mu ne ko ah waaw ndigal laa doon xaar ñu tuddee naa ko naylul maraam gis jot naa ndigal ci kaw mu ne tuddee nañ ko naylul maraam naylul maraam nag si muy signifié mooy am ak càkku teef naylul maraam boobu nag mu ngi ci mu ngi ciy tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga maam Khalifa Niass li mu taalif ci ay téere ci ay ay mansooraat ci ay ay mansoomaat nit lot na ci pekku hmm. nit lot na ci xam ko naylul maraam bi ba ko bàyyam tudd ba ko bàyyam euh, joxe tur nga xam ne bayitam yi mu ngi nekk ñetti téeméeri bayit ak juróom ba ko bàyyam joxe tur muy naylul naylul maraam ndax tudde naa ko naylul maraam fil madihi xayril anaam ma euh, maam Khalifa Niass nee na téere yooyu kii boobu bayit boobu bayit kii ñetti téeméeri bayit yu ak juróom yooyu maa ngi ko jëlee ci limu xaadir xaadir soo ko isaabee mu ngi lay jox 305. maanaam téere bi 305 bayit. bayit la xaadir nag li mu signifié ci arab mooy aji mooy mooy aji ki xam kàttan mooy ki nga xam ne mooy dogal. moo xam ne mooy borom mooy mooy mooy mooy mooy borom dogal gi léegi nag nga taalif téere ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mi sa première téere nga tuddee ko Naylul Maram li muy signifié mooy képp koo xam ne yaa ngi jàng téere bi am sa càkkutéef te aji dogal yi nga xamante ni mooy xaadir dana dogal say mbir borom la soxla hmm. waaw léegi nag euh, bay kii boobu téere boobu mu ngi ko def baxrul mat la ba mooy jaabat xifaaran bi aadan laa anisa biha salma ilayhi wa dooni baata tajoobu fa baata tajoobul fayaa fii laa dalila laha ila lahibun ashtiyaaqin xarruhu saali lan moo tax a jóg maam Khalifa Niass mu ne Mouhamadul Moustapha xam nga foofu dafa njëkk ne ko maam Khalifa salma ngay wax mu ne déedéet Mouhamadul Moustapha al muxtaari min mudarin kan la mu ne wa aadamu kaana fii maa wa salsaali kan la mu ne takkawan min safa nuuru xaqiqatuhu kan la mu ne qablal wujudi bi ilmi lwaahidi alaali téere bii la njëkk a taalif téere bii nag nekk 305 bayit di li mu xaadir tegaat na ci beneen téere bu ko gën a ëpp doole mu wéy ko Seydina Muhammad salaam mu muy xaatimatu durar fil madaahi xayril bariya xaatimatu durar téere boobu nag mi xoodul jawhar mi xaatimatu durar durar ba tagg ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mooy diwaan bi gën a ci diwaanam yi diwaanam bi mu ngi làmboo cinq mille deux cent quatre-vingt-quinze cent quatre-vingt-quinze juróomi junne abiyat ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom hmm. xolal 95 abyaat yooyu. 5500 wala 5200. 5200 la bëgg wax damaa juum 5295. soo ko isaabee mi ngi tolloog aaya alquran bi ban aaya la. qul innama ana basarun mislukum yuha ilaykum annama ilahakum ilahu wahid wa man kaan yarju liqaa rabbi fal yaamal amalan saalihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahadan xam nga ne waykat bi kéemaanoo yàlla la kon da ngeen xool lépp lu wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek. jël na ko ci alquran wax la lan la toll ban aaya la xol xul innamaa ana basarun li muy signifié Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam la yàlla waxat ci alquran na ko mu yuntu bi ne man bindeef laa comme yéen waaye ci bind waaye nag ci qualité duñ comme du nekk comme ñun waaye nag ci bind ma comme ñun la kon moo tax mu ne xali innamaa ana waaye nag yuuxaa kon jikko ñun te ñun kenn waxee yahud yi ah, en kañ waxee yu nañu ndax fa alhamaha fujuura ñëpp ko bokk ndax ni ko gis rek euh, li li koy wax loo loolu ilham la ndax kenn juddu rek ko wax waaye boo dem ba ci kanam di jàng di jàng kii taxaw loolu ilha loolu yàlla moo la koy xamal mhm. loolu ilham la moo tax alquran fa a fujuraha wa taqwa waaye yuuxa ilay inama annama ilahakum waaye nag muy jàngale ne seen eh, eh, ndaal seen yàlla ji ilahu wahid yàlla mooy jenn yàlla ji rek mooy yàlla ji nga xamante moo la ñu war a jaamu fa man kaan yërjo li xaari képp ku yaakaar dajee rek sa borom mu gërëm la kon fa lu yàmmal amalan sax dal def jëf ju baax que wala yusur bi ibadati rabbi ahada kon loolu muy signifié mooy boobu ñëw na di wane ne yunt bi mbindeef la comme ñun ci saahir waaye nekkul mbindeef comme ñun ci xaqiqa léegi nag li muy signifié itam mooy kon téere bi dafa ñëw pour jàngale ne doomu aadama yi moo ko tax a jóg ku ko jàng defaru mooy téere bi nga xam ne tàgg na ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ñëw tolloog aaya bi yonent bi di wa wax ne waree boppam ne def laa comme yéen ndax bu ko defee li ma leen mën a indil ngeen mën koy gëm mën koy dëgg ndax yàlla bu yónnoon malaayka day dis ñun bu yónnoon leen lu malaayka day dis ñun waaye nag comme yàlla yënd na ci ñu suñu biir a prophète ah muy nekk mi def comme ñun wax dëgg yàlla nag lépp lu ñu wax ñu war cee mën a tegu ndax nit la comme ñun waaye bu fekkoon dafa wuuteeg nag day difficile pour nga ànd moom ndax ba mu demee Saqiif mbokkam yooyu waxoon nañ ko ko ci xabbi yaa ila xabdu kulaa la kenn ki na ko bu fekkee yàlla la yónni man xëpp nga ma waaw kon nit la comme mu lay kenn ki ndax moo tax kon du ma waxee yow kenn ki na ko ah man de man yow yàlla de bu fekkee xamul kenn ku muy yónni ku dul yow mii pour xeebal ko daal wan ko ne daal yow loo doon ba yàlla di la yónni waaw keneen keneen ki itam euh, na ko ah man na ma mënumaa wax ak koo xam ne yàllaa ko yónni ñoo lañ ci ñoom ñëpp ku si nekk jéem ko seewal rek ngir lan wan ko ne li ngay waxte gëmuñ ko moom s moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu téere mooy mooy xuqadu jawhar bi ci gën ci biir xuqadu jawhar yi ay xasaa yi bëri ñoo ci nekk hmm. waaye bokk na ci téere mi moom xalifa mi troisième téere mi diwaan bi nga xam ne ci way Cheikh Ahmad Tidiane Chérif bi Kibritul Ahmar Kibritul Ahmar ñi ne mooy almiti jinne almiti jinne est-ce que dafa dox ba dajeeg moom hmm. ndax dafa dafa nekk téere boo xamante nii jafe na pour nga gis ko téere bu mel ni moom. Hmm. moo tax ku ñuy wax docteur Kaba Imran wax na ci wax ji yéeme ci xalifatu Haji Mama Niass ci téere boobu di Kibritul Ahmar. Kibritul Ahmar mu ngi ciy wéy Cheikh na Tidiane fi Madaihil Qutbil Akbar Cheikh na Tidiane Chérif radiyallahu Kibritul Ahmar mi ngi nekk trois cent trois cent trois cent cinq abiyat. trois cent cinq abiyat abiyat waaw. comme bële moom. comme bële. comme Naylul Maram. comme Naylul Maram. xuqudul hmm. jawhar hmm. waaw mu ngi nekk ñetti junne abiyat ak euh, téeméer ak juróom. Hmm? ñetti junne abiyat. 3 mais maa juum de man maa juum de. 3105 ah, ah, laa bëgg a wax. waaw 3105. 3105 man maa juum. 3105 abiyat la voilà man maa juum. mooy ñetti junne abiyat ak téeméer ak juróom moom la téere boobu nekk. mooy Kibritul Ahmad mooy Kibritul Ahmad bi nga xam ne ci la way Cheikh na Tidiane si radiyallahu hmm. boo ko xoolee ci alxuraan mi ngi toll ak aay bii wa inni la xafaarun liman taaba wa amana wa amila solihan summa htada ne xool xoolal ma xoolal ma loolu wa inni la xafaarun liman taaba wa amana wa amila solihan summa htada li muy signifié képp koo xam ne jéggalu nga yàlla tuub nga gëm yàlla man yàlla ma lay jubal léegi la moo tax lan moo tax a jóg tariixa Cheikh na Tidiane Chérif istighfar alhidayatu ak tawbatu ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yonent bi moo ko santaane léegi xoolal li mu tombee aay bi kon nga gis ne yàlla lépp lu def ci borom xam-xamam ak ci ñuy wuutu yonent rek moo tax li Abdul Wadood waxoon jar na di bàyyi xel bu baax sànq yaa ngi koy wax yaa ngi laaj Ousmane Sylla kaw kaw ci ñi nga xam ne dañuy inkar te maam Khalifa Niass wax na ci wax ci yaatoo yaatu yoo xamante yaakaar naa ku jàngoon mbindam boobu da nga wàññi inkar hmm. ndax damaa xam ne Abdul Wadood dafa waxoon ne kalamul awliya li anna nii ana ana wam humo hmm. Maam Khalifa Niass di wax ne imaamu Suyuti mi ngi wax ne inkaar ki ko war a def mooy koo xamante ni ngir yëpp lu ñu xam nga nga pekku nga pekku te ngir ëpp na 300 ngir ñi nii ci gën a siiw rek mooy abu Hanbal abu imaamu Hanbal abu Hanifa la ñuy wax Hanbal eh, imaamu Ahmad ibn Hanbal imaamu Malik imaamu Saafiyu waaye léegi imaamu Saafiyu imaamu Ahmad ibn Hanbal li ñu pekk rek ci xam-xam est-ce que ni mën na ko pekk sax bay xeeb ngir yëpp ñu ne mu na nag imaam Suyuti ne ne ku xamut ku mënul loolu nag waroo def inkaar gis nga ñoom mag ñi dañoo ragaloon yàlla xamul tax yàlla dafa yaatu te yàlla mooy joxe mooy may ci ko neex yuutal hikmata wa man yuutal hikmata faqad utiya xayran kasiran maam Maodo Malick dañoo nettali dafa am ku ñëw di ko laaj benn masala boo xam ne moom mu ne gisu ko ci téere te mun a dégg na borom xam ko wax mu jaaxal ko mu di ko laaj maam Maodo Malick mu laaj ba ko laajee mun ne koy ndax da ngaa jàng yëpp waa ji na ko déedéet mu ne ko téere ya nga jàngu nag ca nekk mu loolu mooy demal nga mandu ji mhm. ndax yàlla dafa yaatu mu nga maam xalifa ñe kon ay taalifam léegi nag euh, way bii nga xamante ni moom way na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mut euh, ci Seex na Tijaani Chérif nga xam ne mutfaa'ilun mutafaa'ilun la qad ashraqat mutafaa'ilun shamsu sawa mutfaa'ilun waqta duha fatanawarat afaaquha bi diyaai wa jallat dujaa laylin bahimin du junnatan fa taraakamat anwaaruha bil bahaai xalifatu Haasi Muhammad Ñas radiyallahu anhu téeréem yi bii troisième bi di kii bi xam mën naa koy continuer indi la quatrième bi Moussa Moussa Miratu Fikri ñu indi la cinquième bi Mur Ato Safa bi nga xamante ni man mooy mu téere bu ma neex la mi Mur Ato Safa ndax maam Khalifa Niass foofu lay melalee ni mu niroog Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam hmm. ci ci ci ci ci ci ci juddu xam nga Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avant mi judd ñu bëri sàkku nañ ko hmm. pour nekk yaayam maam Amin maam Khalifa Niass itam nee na moom ñu bëri sàkku nañ pour nekk yaayam moo tax mu daan wax ne laa tuqadiru an takuna ummi xayra aminata moo tax téere boobu mi mir atu ko taalifee jox ko baayam baayam nee na ba mu ko yiree ba mu jeex di ci la gis Seydina Mohamed alaaj bi li muy wax maam Khalifa moo koy nettali mu ne ko nag maam Khalifa nag mbooleen lu ma woy gërëm naa ko waaye nag li ma gën a neex ci ay taalifam ci téeréem yi mooy téere bi nga xamante ni mooy miir atu safa miir atu safa mooy seetu bi nga xam ne day melal Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di ko wane mu ne mooy téere bi mu ci gën a neex moom xalifa ñi si foofu lay melalee ci téere boobu niroog gum niroog Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax day wax ne sallallahu alayhi wa sallam xiina doo ad diyaau fi wajil abdullah fastaqat di diyaau nisaa def na jamono ba nga xamee ne leeru Seydina Muhammad sallam feeñ na ca kanamu Abdoulaye baayam soxna yi dañoo sopp leer ga tax ñu sopp xaatikatu ki ñu wax raqiqatu ñu ne Faatumatu bintu mu la ne Abdoulaye il faut mu takk ko yàlla ne déedéet abdullah sa leer gi man maa lay tànnal ki koy ki ki ngay takk ki ngay takk de ndeysaan ci la ko yàlla dimbale moom baayam euh, takk ku ñuy wax aminata bintu wahbin muy yaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maam Khalifa Niass ne mu ne may amul jenn jigéen ju ma mën a nekk sama yaay la tuqaddiru an takkoon ummi xayra amina moo tax. <laughs> jërëjëf euh, Jibril Congaan Jibril mel na ni. Mhm. Euh, feeñal nga ñu ne Cheikhul Khalifa teel na commencé taalif ci loo xam ne yaxalu ko woon daf ko daa bind jox ko baayam mu gas ko suul ndax teel gi mais ci liñ yaxal taarixiyan mi ngi toll ci ñaar fukki at mu commencé taalif bind téere bi ñu tuddee naylul maraam lam ca càmbar ci ay bayt nekk trois cent cinq bayt mu bindaat beneen téere boo xam mi ngi ko tuddee xaatimatu durar mu gën a rëy ci lim bind ci ay taalifaat mu càmbar ca mille deux cent quatre-vingt-quinze ci ay bayt mu taalifa téere boo xam ne mu ngi ko tuddee kibritul ahmar mu toll ci mille cent cinq trois mille cent cinq ci ay bayit bindaak téere bu ñuy tuddee mir atu safa ak yeneen ak yeneen yoo xam ne wax nga ne baayam waxoon na ne mhm. lim bind yëpp baax na yëpp naw na ko ci mhm. yëpp d'accord na ci ak moom mhm. mais bi mu ko gën a nawee nag gën mhm. koo neex ci lim taalif mooy miir miratu safa ah, ndax ba mu ko liiree mhm. ba muy pare la gis yontu yàlla ah, Muhammad kon wax dëgg yàllam mhm. koo ko ci ko ci na ko jërëjëf Ousmane ñëw ci yow euh, ci taalifaatu maam xalifa yi yan nga ñu mën a yokkal ci nga xam ne moom ay taalifaat la yoo xam ne mutadaawi la toon aw awsaati xel mi wa saqaafa waaw jërëjëf oustaz bi tey macha allah li congaan wax am na solo te loolu dugal na lu bari mooy ne kon taalif na ci yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. ci lu bare bare bari mm-hmm. waaye ni noonu la taalifee itam sax na Ahmada Tijaani Sharif radiyallahu anhu lu bare bare bari mm-hmm. léegi nag man li ma gën a yéem nga xam ne ni bëgg naa ko wax mooy biir tawaalifam yooyu noonu dafa bari lu ci nekk ci ay xam-xam xam nga nit mën naa taalif lu bëree bari nii te fekk du am benn qualité uh-huh. waaye moom taalifa mi dafa bari waaye yàlla dafa dogal dafa am ay qualité yu bari yu ci nekk uh-huh. te ku liir téeréem da nga gis ne mboolem fànn xam-xam yi nga xam ne ni moom la doomu soxna yi di xam da koy fekk si mbindam mooy xam lu muy taggee Seexna Ahmad Tijaani Sharif radiyallaahu anhu boo nekkee nit ku xamaarut boo ci duggee da nga yëg da nga yëg si bopp boo nekkee ko xam balaa xam boo demee da nga fekk koo xam ne nii moom yàlla daf ko say jagleel ba mu wax ko ne man xassahu bi waadihil bayaani bay bayni kullil bii di war suudaani léegi nag dafa am lu ñuy tuddee lini kaas boo demee ci badin ci balaaxa moom it def cee jongante ak gaañi waykat yi comme ni mu ko defee ci yu bëri gis nga waykat yi jiitoo woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw bi muy nekk ndaw la commencé di mokkal ay burda yi yëpp uh-huh. booba mu ngi nekk xale uh-huh. xam naa bu temps bi yaatoon sax loolu dinañ ci ñëw lu bari bi mu nekk xale ak ni mu yombee woon a mokkal baayam jox ko burda rek mu gaaw mokkal ko ak ni mu amee woon cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne ni waykat yooyu borom waykat waykat yooyu jiitoon ci yooyu yonent dafa leen a bëggoon dafa leen a fonkoon lool xamoon leen itam ba ci ibnu jaabir al andalusi mi nga xam ne ñi dàqoon way yonent bi sallallahu alayhi wa waaye gis nga ah, comme ñooñu daf leen xamoon waaye di indi itam li waykati arab yi gënoon a yéeme doon indi ci seen seen biir way way ak ñoom xariir yi lu ñu doon def ci seeni nga xam ne nii loolu day yéem nit ñi loolu lim mu indi ko ci biir ay wayam xam nga tey soo xoolee li ne xaas boobu may wax comme lu mel ni alquran indi na ah, tey rabbaka fa kabbir mais din waaw gi wa rabbaka fa nga xam ne tey soo dalee ci rabbaka fa kabbir boo dalee xaatee ci raagu mu jigéen loolu la lay joxaat rabbaka fa kabbir mhm. waaw kullun fii falakin boo dalee xaat fii falakin itam kullun fii falakin la lay jox mhm. loolu la ñuy wax linikaas moom nag daf ko def ci benn waay ne lamma daja ashirun li tey fi qultu lahu hal talqa fi talalin rasan yajid amali mhm. ci way yonent bi sallallahu nga xam ne soo dalee ci amali yi itam laam googu ba yéegaat ci lam gu njëkk la ma daja même chose loolu la lay joxaat waaw oh. loolu itam mu bokk ci maanaam ak yeneen ak yeneen fànn xam-xam yoo xam ne soo duggee ci biir waayam léeg-léeg da fekk mu jël te loolu ñëw na moom indi na ko lu raar benn bayit mu indi ci mboolem xeeti mafaa'il yi am mboolem mafoon yi am te génnul benn bayit de benn bayit boo xam ne nii indi na ci juróomi xeeti mafoon yëpp mu tàqat la ko nag indi ca mafoon lu mutlaq indi ca sarful makaan indi ca mafanlu li ajlihi waaye indi fa mafanlu bihi indi fa itam zarfu zaman indi fa itam ah, mafanlu maa waaw xam ne juróomi mafanlu yëpp indi na leen waaye tàqal na leen la ca nekk sarful makaan ak la ca nekk zarfu zaman yëpp mu indi ko ci bayit ba te tagg yonent bi mu ne wajjahtu wajham tidaahi nahwahu raxaban arjun najaata gadaata rawi wal xajali mu ne man jël naa sama mbir sama objectif lépp jëmale ko ci wàllu yonent bi sallallahu alayhi ngir am xemem téefu xemem téef gu ma am waaye di yaakaar itam mucc ëllëg ca bisu tiitaange ga ànd ak itam kon gis nga bam ne wajjahtu wajhamtilaa yi andi na foofu noonu maf'ulul mutlaq mu ne naxwahu mu andi maf'ulu fii maanaam sarful makaan raxaban man di mafaul li ajlihi ka qawlihi taala alam tara ila xaraju min diyaarihim wa hum ulufun xadaral mawti ngir wattandiko de moom mu ne raxaban arju najaata gis nga andi na foofu mafaul bihi daa di ne nag xadaata rawi mu andi foofu zarfu zaman wala nga ne mafaul fii mooy zarfu zaman wal xajali muy mafaul maa loolu mu andi euh, ci benn ci benn benn bayti loolu itam bokk na ci li nga xam ne nii léegi nag moom bëri na lum taalif ba ci ay xasawaat xare yi yonent bi sallallahu alayhi wa def yëpp am xare yëpp la topp bokku te xamsiya bi de xamsiya bi moom jàngale nag fa moom mm-hmm. comme ni ñëpp di jàngale xamsiya bi andi na fa xare yi yonent am tënk mm-hmm. waaye da ci def téere spécial mm-hmm. def ay tagg yoo xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi ba ci bi mu demee màkk ndax moom Seydi Ahmad Sukari ji daf ko doon soññi ci muy bari lu mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon lu mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay téeréem bëri na yim taalif ci yonent bi mënoon nañoo jël nag ñi liir ko benn par benn naan lii moo ko taalif lii moo ko taalif. tayib euh, mel na ni sax waxtu yi dafa ñoo xaw a dab day Ousmane euh, xam naa kon yan kàddu ngay tàggatoo yan kàddu ngay dénkaan. waaw kàddu yi may tàggatoo rek mooy kàddu yi sant yàlla bu baax a baax ak itam di tëjee rek wax ne maam Khalifa Niass radiyallahu anhu mi nga xam ne nii. ziyaara bi moom moo ko doon defal baayam mook ay mbokkam ak i rakkam. Mm-hmm. ak taalibe baayam. ñu continuer di ko def ba léegi a faju aajo la ndax moom dafa wax mu ni euh, bi baayam génne àddina cent 1922 xam ne mu toog ab diir ba mu ñëwee dakaar xam naa ay 1923 rek mu ñëwoon na Dakar fi Tëngéej di ut si ay birig daal yu mu defaree rawdu baayam boobu xabru baayam boobu noonu foofu sax taalif na fi benn waaye xam naa temps bi moo dañoo nekk ci tàggatoo moo tax mm-hmm. waaye ñi ñuy occasion ni foofu rek mm-hmm. xasida boobu def ci dénkaane lu ama am solo ndax Dakar gi la ko defee mm-hmm. rawatina jamono bii nga xam ne nii ah, nit ñi seen jikko yi yàqu nañ ñi saaga kilifa diine yi di saaga xalifa sénéraux yi di ko defee ci façon bu leen neexee même lu mel noonu sax ak wàll ah, dund wàllu dundinu doomu aadama lu bëri bëri jàngale na ko ci xaside boobu nan lañ war dundee ci société bi nga xam ne ni yow boo nekkee ci kër gi da ngay dund di liggéey ñeneen ñi di liggéey kenn du nekk kall ci keneen ki nga xam ne kenn du nekk gang ci keneen ki lu ma doon bëgg a wax foofu mooy mu ne bi mu ñëwee ba jël birig yi ba yóbbu euh, defar rawdu maalaaji bi ba mu duggee ci biir rawdu bi am na lu ko yàlla lu ko yàlla yëgal foofu noonu loo xam ne ni ak ndono la gu gën a firndewu nag ci maalaaji Abdoulaye Niass radiyallahu moo tax bi loolu jàllee benn taalibi maalaaji Abdoulaye Niass radiyallahu dafa ñëw di di ziyaarati maam Khalifa bay dem mu ne góor gi ah man de sa taalibe bi bàyyi la woon maam xalifa nag boo demee nga utal ma xar mu rëy xam naa ne nag maanaam mu bokk ci gaañ yi nga xam ne ah man lu ma nangu loolu ma alaaji Abdoulaye Niass loolu dootuma ko nangul keneen de mhm. pour rek ñu xam ne kon ziyaara bi nii mhm. ki nga xam ne ni moom lañ koy defal mhm. noonu la wutoo ma alaaji Abdoulaye Niass radiyallaahu te noonu la ci amee ak ahliya mooy yelloo loolu moo tax may indi lii kooku mu ne li ma doon defal ma alaaji Abdoulaye Niass dootuma ko defal keneen de loolu danaa ko def ci bitig ba la ko waxee nga xam ne boo sori na maam xalifa léegi nag mu continuer moo ñu a dem bi ñu demee ba ci pont Noiraux foofu ci Kaolack seen oto bi paan moom mi waxoon loolu bi oto bi paanee ba mécanicien yi di defar yu fekk mu ngi toog si booru pneu oto bi bi ñu defaree ba pare rek accéléré fa pneu bi jaar si kaw luppam bi oh. lupp bi toj mhm. ñu yóbbu ko hôpital maam xalifa nag ab xar la doon ko laaj loolu nit yàlla dañ ko def léeg-léeg laaj la dara loo xam ne day nekk njot si yow pour dara mhm. léegi kooku bi tànk bi tojee lupp beeg yooyu gars yi dem nag ah ka doon laaj xarma dey kooku moom la euh, oto bi jaar si kawam gisuñ ko nangam nangam mu ne leen ne ko mu gaaw ci sama xarma rek. Mhm. na gaaw si xaram ma. Mhm. am na si koo xam ne nii moom. Mhm. maam Khalifa daf ko fekk mbokk yaa ñëw ne ko. diw de dafa feebar feebar boo xam ne ni ragal nañ maam Khalifa ne bisu tey bii nii balaa jant bee so dana génn àddina kanaa lenn. mu ut lu rëy si moom loo xam ne nii lu mag la mu jox ma ko àddiya waaw. waaye bu ko deful feebar boobu du si jugaat biñ demee ba yeggee ko kooku noonu mu war koo def ba pare soxnaam ne ko déedéet ah yow jëru ko de ah yow yaa ko def sax yow li ngay dem si maam xalifa moo tax boo defoon ni say morom ñakk dem si moom boobaa du la laaj yi nii yëpp moom mu dégg waxi soxna sa rek moo tax am na góor ñoo xam ne fi ñu tardé seen soxnaa leen tardé. jërëjëf waaw euh, waxtu bi dafa jeex waaw. nga baal ma tuuti benn kàddu foofu laay daane léegi góor gi. bi nga xam ne nii soxna si nee na ko euh, bul ko def. moom it mu ñàkk a def loolu waaye naka maam Khalifa Niass waxee noonu la amee si bis boobu la génn àddina. kon loolu laa doon yan kàddu Saas ah man de man loolu wax tey wax dëgg yàlla bett na wax ndax bëggoon naa laal ci jamono ji nga xamante ni dañuy jël ay xaatim di ko dugal ci internet bi di ci nax nit ñi te maam Khalifa wax na ci. Hmm. di ñuy saaga mag ñi di xeeb ñu baax ñi te maam Khalifa Niass waxoon na ci. ilallaahi nasku za zamana wa ahluhu mm, li maylihim amma ata fi shari'ati moom nga doon junj sànq mm. wa mastaqabahu mimma ata fi kitaabihi wa fi ahlu rasulillah yàlla jarimat lu ma ci gën a neex mooy wa man shakka fi za zakka fi shakka fi sidqi qawlihi fa baa bi xusraani wa charr alxuqubati wa iyaaka wa daawa alwilaayati mm-hmm. fa martahu al faazar wa xiimal maishati mm-hmm. sëriñ bi waxtu bi daf day saas daf ne képp koo xamante ni maa ngi leen yaa ngi jullit di ak loo mënta doon maa ngi lay moytundi ku la xoote wilaya mm-hmm. mu ne boo boo bëggee xam li gën a bon ci gaaf mooy mm-hmm. kii xoote wilaya comme jamono ji mm-hmm. waaye wax na it yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi saaga suñu mag ñi wa mastaqaboo mimma ata fi kitaabihi wa fiilu rasula yàlla jarimati kon yow jamono yow yàlla maa ngi lay jàmbatal jamono ak ñooñ jamono lu tax an may lihim jéng guñ jéng xam maa ata fi shariati xoolal bu ñu toppoon bayit boobu fi la ñuy fanaan ndax xoolal mu naan yu bàyyi xoona lil juhaali asma a suxrifan hmm. ñu ngi jaay ñi nga xam ne amuñu xam-xam hmm. ci ay tur yoo xam dañu ko refatal hmm. ay xaatim comme ça yu xew nii rek su ma la ko defee léegi xam nga fan yii rek jàpp nañu ay nit ci kasoon te ay nit ñu ci nax ay nit ci xaalis waaw xaala àndaxa mu xoolal ñoom ña ngay wax na asrarul asrarul asra asrarul hazihi tariqati lii mooy secret bi bi la tariqa maam xalifa na déedéet du moom de sori naag secret tariqati du moom de mu ne wa kaanat an asraari tariqati bi maasinin sori ant nañ trop trop trop mu ne déedéet wa baynahuma xam nga lu mel wa baynahuma loolu loolu ngay wax ne mooy mooy mooy mooy mbuutu tariqa bi wa maa bayna nuuri wa zulma dafa mel ne diggante lëndëm ak leer kon loolu lépp loo xamante ni nit ñaa ngi koy naxaatee ci seen xam-xam rek maam Khalifa Niass jàngale na ci lépp loo xamante ni itam nit ñaa ngi ko nit ñaa ngi ci euh, comportement boobu nit ñaa ko yor ci jamono ji ci la ñaaw lamañ wu ñaaw maam Khalifa Niass jàngale na ci kon li may tëjee rek oustaz mooy chammir li kay tudrikal aliya salikaha wa sir ilayha bi qalbin sadiqa toli maam Khalifa Niass moo ko wax mu ne yow mi nga xam ne taalibi nga te gëm nga ne yow taalibi nga takkal seen digg ci seen digg ci sa sa kaala ci seen digg ngir li nga soxla nga mën koy jot li tut li kay tudrikal aliya waaye nag ci kaw condition nag nga ko mën a jotee ndax nekkul ne ñi xoote sëriñ yëpp sëriñ la ñu dafa xam ñuy sëriñ sëriñ kon fexe nga xàmme ko kon nañ nu ñuy def mu ne wasab laha al mahiri al xiriti soo ko xamee nag alqalahu fadala zaman fu ma taxtaaru min arabi mu ne wutal la koo xamante ni xam na njuumal dëgg gi koo xamante ni xam na turi yàlla yi tax ma tamal mal kasfu ilaa xanaa asmaa illaahi kasfu mooy nga xam turi yàlla yi nga xamante ni bu la joxee turi yàlla ngay jàmmal yéeg leer soo tagee mu tàggati la soo mëntu yéeg mu yéegal la kon turi yàlla yi waruñ koy jaay ah teréwuñu ko tur yàlla kenn du ko jaay maam kenn du ko jaay euh, waaye dañ ci joxe ndigal ñi koy jaay tey nag ñoom waaw mu ne loolu nag mu ne ay naxaate la nee na képp koo xam ne yaa ngi jaay turé yàlla yaa ngi naxaate te rawatina sax nga naan koy mooy secret tarixa bi mu ne ne wuti naag secret tarixa dafa mel ne diggante lëndëm ak leer ndax secret kenn du ko jaay mhm. fa shirru xiina fasha sharrun loolu la wax yëpp kii bi dafa ne secret bu xasee bu siiw rek nekku du secret sharrun la mooy xëy la kon ñu ngi jégalu jërëjëf euh, jasakallahu xeyran kon mm-hmm. mbokk yi nga xam ne ñu ngi jëloon seen temps jàkkaarloog seen télévision DTV ci seen émission bi ñu tuddee ëttub islam tey ñu defaloon ko spécial siyaare maam Khalifa Niass lii la yàlla dogaloon ñu am ko ci waxtu lu ci rafet yàlla la neex mu rafetalee ko nii lu ci manqué ci matériel ñun ñi ko doon def la ñoo ngi leen di koy jégalu ñoo ngi dellu gërëm suñu invité bi euh, Jibril Congaan di ko ñaan yàlla tawfiq di ñaan yàlla jëf ji yàlla boobu neen yàlla ko yàlla def misaani asanaat yi di gërëm Ousmane si la kookoo di ñaan yàlla jëf ci yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def fi misaani asanaat yi di gërëm suñu réalisateur di gërëm suñu preneur de son di gërëm waare si bi di gërëm caméraman yi liggéey bi képp koo xam ne sa loxo tàbbi na ci ba jaamu yàlla yi mën ko seetaan ñi ngi ñaan yàlla boole ñëw yi bi ñu ngi leen di jox rendez-vous dox dajee ajuma bi di ñëw insha allahu maulana wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu